ak jàmm bienvenue euh, ci seen euh, émission miroir du Sénégal tey nag euh, ñu fas ne ànd ak yéen ak ñi may ci àndal sa su nekk démb ngeen amoon fi ki nga xamante ne moom mooy Bijou Ndiaye Bijou nag ñëwoon ci sujet de la semaine bi ba tey muy la le cancer du de la peau dû à à la dépigmentation ñu fas yéene continuer waxtaanee loolu ba fii ak suba pour clôturer li nga xam ne mooy thème de la semaine ma dalal ñi nga xam ne ñoom la bokkal plateau bi ndaxte. dalal naa la nuyu la nuyu bu baax sister. di fay képp koo xam ne muy toog këram di ñu seetaan di nuyu suñu sista Diodo ah moom nga xam ne tout le temps rek damay am mbégte ci di ko gis ak euh, ma grande sœur d'amour je crois du pas ak suñu EFD bi nga xam ne moom dafa ñëw rek commencé ma attaqué. ñu ñu yëkkati ñuul contre xees léegi nii ci plateau mais euh, waxtaan bi xam naa dina yaatu te dina neex comme tous les mercredis. Mm. en direct sur la TFM ci Miroir du Sénégal. Mm. léegi léegi. yaa joojo. waaw ginnaaw bi ma santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur ya di leen ñaanal fu ñu jëm gën a leen fu ñu jógee ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër yi hôpitaux yi mbedd yi géej ji jéeri ji tali bi jaww ji fu waay mën a nekk am loo yëg ci sa yaram lu bokk tëb wér yàlla na la ko yàlla saafaraal ñi caabi féete ginnaaw yàlla wëlbati caabi ji ci seen kanam te bañ leen faa delloowaat nuyu naa la borom teint bi macha allah fii nga teg sa tànk foofu la Kumba maa ngi lay ziar yow tamit di lay yéegal ci sa yéeguwaay. waaw uh-huh. lan doom ji ndeyam gërëm yàlla sa jàmm yàgg yow nag nee nga yow yaa am fit <laughs> à tout à l'heure Kumba. waaw waa léegi da kii borom teen bu yànj bi man borom teen lan laa moom. ah yow caramel macha allah. Ah. waaw ah allah. <laughs> yow chocolaté macha allah waaye ki xees ba am fit ñëw jàkkaarloog ñun ñii. dootu ko defat d'accord ci kanam ñu xool Choupa. Kumba euh, euh, di am mbégte jàkkaarloog yow. aussi di am mbégte jàkkaarloog sunu mbokk téléspectateurs yi. waaye di amati mbégte jàkkaarloog sunu grande bi nga xam ne moom sunu mag laa garaawul. waaye maa ndaxte dangu maa bii ngaa dangu. comment tu vas nangu naa la. <laughs> ma chérie comment tu vas. borom teint bi. yow yaa taxaw assumé Sénégal miroir du Sénégal nga taxaw. maam Kumba jooyloo na ku nekk nga taxaw. waaw yàlla baax na non tey am fit tey affaire bi du jooy moom tàngal la wala bon bon la wala lu mu doon. tàngal la mais dama ko inspiré ci astu bi. Ah. astu bi ak Chupa Chips. ah Chupa Chips mu yàgg na. waaw yàgg na <laughs> Fatou ma dalal la. merci Kumba maa ngi nuyu yéen ñëpp di nuyu sama grande sœur du teint noir bi moom yow moom tax nga ma bëgg a nekk teint noir. <laughs> <laughs> maa ngi nuyu sénégalais yépp di leen gërëm di di leen di kontaan tamit ci invitation bi kontaan naa trop maa ngi sant di gërëm ñépp daal di nuyu sama yaay je te fais un coucou maman je di nuyu sama papa yal ko yàlla xaree àjjana waaw yal na oyof ci kawam ku baax la woon bëgg ma ba bëgg dee alors Fatou moo nekk tey suñu invité moom nag ci jàmbakatu diw yi laa ko boole ndax jambakatu diw la dafay jaay ay diw li ma doon rappelé nag mooy comme ni ma ko waxee tey sujet bi ba tey ci sujet de la semaine la dugg muy le cancer de la peau dû à la dépigmentation moo tax ñu continuer waxtaan bi tey nag ñu joxoon parole sénégalais yi ndaxte demaloon ñu ci terrain bi exactement maam demoon nañ ci terrain bi pour def quelques interviews. Mm-hmm. yi nga xam ne tey jii euh, comme ci thème bi rek muy euh, le cancer de la peau dû à la dépigmentation ñu ci bëri nag jox ñu seen xalaat régie bu baaxee ñu dem fa. comme ça ñu seetaan éléments yi ñu jot a jël. bu ñuy discuter ko. Sénégalais yi lan mooy seen avis ci li nga xam ne mooy wàllum dépigmentation bi tey nag ñu ngi fi fekk suñu benn nijaay nijaay ñu ngi lay nuyu. ça va bien ñu ngi sant bu baax euh, ñu bëggoon xam lan mooy sa avis ci li nga xam ne mooy dépigmentation bi maanaam xeesal ndax gis nañu Sénégal jigéen ñi dañ koy def mais tamit góor ñi tamit dañ koy def léegi ñu bëggoon xam loolu lan moo ci sa avis. bu ma sañoon daal jigéen ñi duñ ko parce que xeesal baaxul mu mënoo jékki jékk ñuul une semaine nga xees sa peau dootul am doole xam nga bu ma sañoon daal lañ ko fi interdire quoi parce que xam naa ne vraiment moom baaxul. léegi góor ñiy xeesal. ah góor ñuy xeesal xam naa seen xalaat la rek mais loolu moom du yoon moom wax dëgg yàlla xeesal moom du lu baax quoi parce que mënoo ñuul tey une semaine nga xees sa peau bi dootul am doole bu ñu lay opéré da am problème man daal bu ma sañoon moom wax dëgg yàlla dañ koy interdire quoi. comme ni ma leen koy faral di waxee rek micro trottoir la tey nag comme que interviewé nañ léegi ki nga xam ne mooy sunu nijaay dañuy jàll ci ñi nga xam ne ñooy xale yu jigéen ñi parce que c'est plus fréquent chez eux ñu laaj leen ñoom tamit seen avis que nga nekk ku ñuul wala nga nekk ku xees wala nga nekk koy xeesal. non non du dara sax nag damaa gis sama xeeti di xeesal man tamit ma ne xaaral ma jënd diw rek mu diw loolu la. waaw sànq ne daa doon dégg sama benn mag mu ma koy wax mais xam nga man ma seetaan journal ko doon wax mi ne ma yow dégg nga xeesal luñ si wax après mu tegal ma ko nag mu ne ma bu yeboo na nga bàyyi yooyu noonu man xawaa naa bàyyi incha allah. góor ñi bëgguñu xeesa. dëgg la bëgguñu xeesa. yow yaay diw sa diw bopp rek waaye kenn imposé wu la ko. Hmm. kon tey ji euh, ñu buggoon xam ndax maman bi ngay diw da nga doon jël ay produits cosmétiques yoo xam ne yaa ko jënd wala ñi ñuy jàmb ñoo la defar. non non pas jàmb sax mos naa jënd diw 1000 francs fii ci marché bi mu weex a ma taal. yàlla xam na ko. ku ñëw na ma loola xeesa ma ma ko na ko diw bi de 1000 francs laa ko jëndee moo sama yaram dëgëru man lu ma diwoo damay leer sama yaram dëgëru bu baax bañ a changer sa yaram nit ki la yàlla bindee teint noir dara daxu ko si àdduna waaw teint noir moom donc ñun ñu nekk extérieur kon damay wax ci baatu ñu nekk extérieur donc xam nga des fois euh, ak ak téléphones yi xew léegi filtre yeeg affaire yooyu noonu day day nax ñu bari mën naa ni que ñi nga xamante ni que ñi ngi ci diaspora bi ñu bari loolu da leen di parce que dañuy gis xale yi ñu photo wu def vidéo raxas ba mu set yónnee leen après xamuloo nu muy demee nga ñëw dugg ci ñëw ba fii naan kii ndax moom la donc te loolu dal na ku ne maintenant léegi nag ni ñu commencé na ci affaire yooyu noonu parce que ak évolution bi am peut-être bon nga ko bett def benn appel vidéo def yenn affaires yi xam xam nga wala nga yónni ku ne maintenant léegi nag nit ñi ko ñi nga xamante ni ñu ñi ngi ci diaspora bi ñu bari loolu daal leen di parce que dañuy gis xale yi ñu photo wu def vidéo raxas ba mu set yónnee leen après xamuloo nu muy demee nga ñëw dugg ci ñëw ba fii naan kii ndax moom la donc te loolu dal na ku ne maintenant léegi nag nit ñi commencé ñëw ci affaire yooyu noonu parce que ak évolution bi am peut-être bon mën nga ko bett def benn appel vidéo def yenn affaires yi xam xam nga wala nga yónni nit yooyu day am quoi. Euh, bon ñu ngi fii nag sur le terrain ñëw tey euh, pour laaj sénégalais yi lan mooy seen avis ci li nga xam ne mooy wàllum dépigmentation bi tey nag ñu mu nekkoon quelque avis des sénégalais ci kanam tuuti nag am na yeneen ñu waxtaane ko. exactement. Mhm. parce que nit bi ñu wàccee ci terrain bi di doon waxtaan ak ñoom ku ci mhm. nekk tey ñu laaj la seen avis parce que ay sénégalais lañ te jot nañ koo dund bu dul ñu ngi xeesal dëkk nañoo kuy xeesal wala ñu xam kuy xeesal moo tax nag ku ci nekk ak rek sa opinion te ku ci nekk ak sa avis ñu wàccum sur le terrain di leen ko laaj ñu ngi gis xale góor yoo xam ne kenn ki moom nee na extérieur la nekk mais ñu ci bëri bëri bëri tey ji dañuy euh, focaliser wu ci ñi nga xam ne xale jigéen ñu ngi ci réseaux sociaux yi di dépigmenté wala ñu jël filtre ba mu xeesal ba mu leer léegi ñoom dañuy foog ni que gel bi noonu la mel léegi ñu yónnee pour takkee tout mais bu ñu yegsee ba Sénégal dañuy sax réccu li leen ci tax a parce que dañu naan kii ndekete ki ñu ma wonoon ak kii ni ma gis ñu jàkkaarlool c'est diamétralement opposé am na tamit euh, mag boo xam ne waxtaan nañ ceeg moom muy suñu benn maman moom nee na moom famille am kenn musul laal produit dépigmentation moom nee na këram ñëpp a ñuul am na tamit xale bu góor bu ne moom moom bu doon takk euh, bëggul kuy dépigmenté wu mën mun na takk koo xam ne dafa xees naturellement wala ku ñuul naturellement ku ci nekk daal joxe nga sa avis. Mm-hmm. alors ñu rappeler juste que ni euh, le débat n'est pas carrément le xeesal mm-hmm. mais plutôt les conséquences yi nga xamante ne mun na koo indi ci sa peau lu mel ni cancer actuellement ñu ne ñi nga xamante ne amee nañ cancer de la peau nekk ay jigéen mu nga xam ne xeesal bi moo leen ko indi la plupart 100 pour cent ci ñi nga xam ne dañuy nekk hôpital depuis décembre ak léegi ñoom dañ ciy faatu àndaxte exactement parce que euh, ñu ci bëri bëri bëri tey ji bi ñu leen laajee nee nañ carrément am na ñoo xam ne bi ñu seetaanee vidéo bi nga xam ne temps yi c'est viral moom la ci la ñuy door xam li nga xam ne mooy conséquence wala risque yi leen ci fekk peut-être xamoon nañ ñu ko xeesal mën na dem boo ci kiiwee demee à fond mën na la yàq sa yaram mais xamee ko woon euh, nii comme ni mu virale temps yi ci réseau ba ñu ci bëri nee nañ ñoom nee nañ dinañ bàyyi loolu lañ wax ci mbedd parce que nee nañ bëgguñu am ay problème ndax buñ demee ba ci biir parce que neen nee naa leen euh, am na ku ci ne euh, li ñuy li ngay jëndee 1000 francs mën nga fajoo 1 million. c'est clair. te loolu ñu lu mat a bàyyi xel la mais question de choix rek la duñ ci juger kenn wala dara juste dañuy joxe suñu avis rek. yoo xam ne vraiment nekk war nga mën a am xel parce que boo demee ba ñu lay perfuser ay xeesal mhm. di ko dugal sa yaram wala du la injecté wala ngay naan ay yenn comprimé yu ne la yow lii carrément daf lay leeral laa yaa a problème parce que nekkul li ngay diw sa yaram kese mais li ngay naan après loolu conséquence yi loolu moom moo waral tey lii yëpp mais oh, est ce que est ce que tey su ma ne la ndax xam nga jëriñu der lu muy def ci jëriñu der lan la. ci ñu ak der. bien sûr c'est pour pour ñu pour pour pour protéger ñu. déjà boo xoolee nit yu weex yi bu été bu jotee dañuy dem bronzé wu. Mhm. pour jéem a wàññi seen seen seen kii pour mën a am ak ñun comme ñun africain yi teint bu ñu mhm. parce que ñun bu ñu xoolee ñun suñu peau moo gën a résistant. c'est parce que ñun ñun déjà. oui parce que on est sous le soleil voilà donc ñun dañoo war a suñuy couche de bien vrai que chaque 28 jours nit ku nekk sa der dafay xolleeku loolu c'est naturel mais pas ngay jël ay produits yoo xam ne ay peeling ay sol ay mbuus ak kawas ak yooyu déjà coono bi rek maam kumba coono xeesal rek. daa métti budget la sax nag. da ngay xeesal wala da ngay leeral. damay leeral comme yow rek. ah man maa wax damay leer. waaw yaa ko wax démb seetaan naa la de dama lay baar de. alors euh, ñu am koo xamante ne moom invité la tey nag indoo ñu dermatologue parce que dermatologue bi démb mu ngi fi woon déglu nañ ko gis nañ lu mu wax yow nga nekk jàmbatu diw macha allah ku la xool sa tey macha allah neex na mais conséquences yi ndax yaa ngi ciy bàyyi xel. bien sûr Kumba maa ngi ciy bàyyi xel bu baax ñu tax xam naa li may def bu baax depuis. Euh, ça fait six ans plus de six maa ngi ci donc li may def dama ko testé ci sama peau loo testé ci sa peau ça fait six ans amul risque amul loo xamante ni day yàq yaram testé ko tamit ci peau yoo xamante ni c'est différent mm. parce que testé naa ko ci peau noire testé naa ko ci parce que am na teint noir yoo xam ne ni ñëw ci yow ne dama bëgg a maintenir sama teint am teint caramel nga xam ne dañoo am teint bëgg weex tàll tamit ñoom yëpp def naa test boobu parce que ba may soog commencé commencé naa diw Euh, bi ma ko commencé dama amoon problème parce que commencé naa ko di euh, jël sama sœur parce que teint yi bokkul sama waa kër yi ñii dañoo ñuul ñii marron ñii am teint clair ma essayé ko ci ñoom mais bi ma ko essayé am ñi nga xamante ne samay copine la ñu ma may leen après dama gis conséquences yi kii dafay am picc ma xam ne li ma def yaa ngi dee kii dafay am euh, day diw du ñuul teint bi ma bëgg di ko am léegi nag man damay xam ni li ma jotoon def damay éliminer noonu yokk ko mm. li may def ci diw bi dama ko xam parce que jëndeewu ko fu bon. Mhm. jëndeewu ma ko foo xamante ni nag c'est primaire en fait. Mhm. jënd fu yomb daal def lu yomb defuma ko. Mhm. dama sonn ci samay diw parce que powu jàmbur boo ko utiliser da ngay. alors lan moo la poussé woon à ce que nga décidé ne da ngay jaay jiw. feeling la woon ci yow wala da nga jiw sa teint gën nga améliorer sa teint parce que ku la xool xam ne da ngaa xeesoon. ba pare dama weex dama xeesoon. waaw mais xam nga boo yoree teint il faut nga defar ko. Mhm. boo nekkee déjà Afrique moom fii suñu climat bi yàlla dimbali nañu boo yoree teint même teint noir yi dañuy obligé di diwu mhm. dañuy jël qualité bu baax di hydrater seen peau. Mhm. sinon sa peau day yàqu. ku la xool du la du la xàmmee. oui mais hydrater la po c'est différent de agresser sa peau. non pas parce que man du ma agresser sama peau. comprendre dama la bëgg expliquer que ne la teint noir yi ñoom tamit dañuy euh, laal xeesal dañuy laal diw pour defar seen peau donc ñun bu fekkee dañu xees mënuñu diwoo lu ñuy ñuulal en fait ah. on est obligé ñuy lu ñuy leeral loo xam ni day defar suñu peau tout à fait voilà comprendre nga sans hydroquinone sinon duñu ci génn ndax climat Sénégal kenn xam ne ñëpp xam nañ ni mu mel man nag dama doon diwu di dox ci mbedd mi su ma doxee deux pas trois pas fàttu looy diwoo da nga xees Louga xam nga. Mhm. su ma doxee diggante fii ba escapé bam dañ may wax ne ma looy diw ak yooyu après ma ne xaaral. pourquoi pas ma wut si dara après nga mhm. def ko kii ma jël ko wutal di ci wut xaalis du dëgg. def ko métier. léegi est-ce que mës nga cee am retour bu négatif. bien hmm. parce que au début. mës nga jaay dara nit yaramam yàqu mu créé la problème voilà. non parce que jaay naa nit mu ñëw teint clair la mu ne dafa bëgg gën a weex. mu def ko léegi man vu que crème yi ma doon def que diw bu njëkk yemut ak léegi. parce que diw bu njëkk boo booy xool amul bi instant bi dinañ defar ay crème solaire diw bi instant bi yemul ak bu njëkk tey bu njëkk booy tey day metti trop nga dégg xeesalkat bu ni gaynde na du am parce que dañuy protégé suñu po mhm. bu ñuy def kerem de visage am na lu ñu njëkk teg bu njëkk am ko woon parce que dañ daan jàpp ci biir di togg jël ay ay dog ay zel lu ne nga def ko ci biir diw bi laa da ngay yàq peau jàmbur. donc jaay naa diw nit kanamam normal mu ñëw am ay bouton ne ma sama kanam amul bouton ma xam ni am na lu ma def loo xam ne waruma ko ci woon def. comprendre madame euh, euh, Fatou excuse-moi maanaam yow say client say defoon ay cobaye wala. Hmm? say cobaye say cliente la woon. waaw samay cliente ak sama famille ak mes copines. ñoo nekkoon say cobaye ñoo nekkoon samay cobaye damay defar pan ba mu mag. ma jël des teints différents may leen ku ci nekk ma xool nag li may liggéey ku lu mu def ci yow te benn façon mélange bi may def. mën na diw ku ñuul mën na ko diwoo mu maintenir teint am ku xees mën na ko diwoo mu maintenir teint am ku blanc mën na ko diwoo mu maintenir teint am. Mm-hmm. d'accord comprendre tax ma am fi. da nga am question pour Fatou avant may continuer ak moom. Euh, Fatou ko bëggoon laaj rek euh, ndax euh, bi mu commencé ak léegi gis nañ jongante bi tout parce que. Euh, c'est c'est c'est c'est c'est c'est très bien ku ci nekk tey ji comme ni nga ko waxee léegi da ngay jàmb benn paan boo xam ne teint noir mën na ko diwoo teint clair mën na ko diwoo teint marron mën na ko diwoo. Mhm. loolu lépp c'est bien beau mais tey jii teint noir man comme parce que type de peau yi bokkul. Mhm. man mën naa am peau boo xam ne dafa fragile. ma diwoo diw bi nga xam ne parce que loolu soit comme sànq yaa ngi wax nga ne am na bu fekkee ba nga ko testé am na benn produit boo xam ne yow xam nga ni que. waroo ko ci woon def nan ngay xamee ni que produit boobu nan ngay wee produit boobu ci biir produits yi nga xam ne moom nga mélangé mhm. parce que dama yàgg a xeesal yàgg diw sama yaram hydroquinone mhm. ok comprendre léegi damay xam tey bu ma xëyee suba ma defar benn mélange boo une semaine mélange boobu bu ma joxee ten marron damay xam ni mélange bi ma def tey sérum yi ma ci def huile yi ma ci def man jox na ma teint bi ma bëgg mhm. tey bu fekkee teint mélange boobu dama ko jël jox ko teint tamit sax amul lu mu bëgg damay xam ni am na lu ma ci war a yokk parce que bu ñëwee dina ni ma faatu sama teint dafa fragile. Mm-hmm. man soit sama yaram dafa dëgër soit sama yaram dafa oyof bu ko defee dinaa xam ne man mi borom yaram bu dëgër bu ma doon def benn naa ko yokkal ñaar su nekkee sa sa yaram nag dafa oyof donc man li ma doon def di ko def pour weex dama koy xaaj loolu dëgg la parce que tey jii ñi ñi ñuy gis ñuy jóg di dem diwu ji en général mën nañoo ñëw rek wax la nii te demuñu consulter dermatologue pour xam ndax seen teint dafa seen yaram dafa dëgër. Mhm. wala seen yaram dafa nooy man sa yaram bu yàqu nga ñëw ne ma damaa bëgg dama cere sama yaram dafa yàqu. kii la jaay diw laay dem ne la demal nga laaj ko lu mu def ci diw bi parce que boo xamul lu mu def ci diw bi mënoo ko faj. mais ñoom dañuy bañ. li mu mel wax seen secret yi mais yow miy jënd mais bu yàqoon nan la defal li parce que médecin boo ñëwee di faju boo ko sa feebar du la faj. waaw dëgg la mais est-ce que di yaa ngi kii ak benn dermatologue pour di waxtaan ak moom mu lay conseiller ci wàllum jàmbu beeg yooyu noonu. avec les réseaux sociaux boo duggee Google tapé YouTube après da ngay xam li xew ci àdduna bi yëpp. Euh, yaa joojo da am question pour Fatou. Fatou dama koy laaj. Mhm. ndax euh, dafa bëgg continuer di xeesal ba yenn âge yi wala dafa bëgg dem ba ci kanam arrêté wala lan lan lan lan la ci xalaat. ci xeesal bi mu def xeesal tur bi moo rey mais en ku ci nekk bëgg na pour ok parce que bu njëkk moom laa doon wax sànq yemul. ñu doon diw bu njëkk xamuñu li ñu doon diw d'ailleurs man euh, tey buñ nee ay at ci ginnaaw àdduna léegi dafa évoluer yu bëri amul woon ay kelem sore woon amul woon yoo xam ay produits yoo xam moom ngay njëkk a teg sa yaram du la yàq moo tax sànq man nga yéex ay mère gaynde suñu génération tey ñi nga xamante ne dañ ko am ay mère xam seen que xamuñu woon ñu doon def. dañu jël ay mais am nañu am ñoo xamante ne nekkuñu ay mère gaynde mais nekk nañu ay boy gaynde waaw moom laa leen parce que ngi diwoon loo xamante ne euh, euh, euh, mère gaynde yi ni ñu yàqoo nu ko raw la ñu yàqoo taay xale la moo tax ma ni la nag boo amee expérience jiw yàgg jiw mhm. da ngay xam yow mi li ngay def ok comprendre nga de mhm. ce fait que yow di nga xam ni carrément que àdduna bi léegi dafa évoluer mhm. da ngay jënd diw liir ko benn sérum nga toog nga liir li ñu bind ci sérum bi parce que boo demee pharmacie yow tey noir bi di jënd diw dañ lay proposer pharmacien moo lay proposer diw boo xam ne tubaab bi ñoo ko defar xamoo lu ñu ci def oui mais là mais là mais là pharmacien bi dafa jàng. mais ñun dañuy jënd tube dañuy jënd diw le pharmacien. ñun dañuy jënd ay diw ay huiles ci pharmacien. waaw ah, lay déglu cher trop ñu ko mélange ñu bëgg suñu ko. le le pharmacien est quelqu'un qui a fait des études très très poussées. Mhm. avec ay sept ans à l'université xam produit bu ne lu muy jëriñ ci yaram. boo ñëwee ci pharmacie bi mu proposé la ko parce que xam na nu mu lay proposé. tax ñun bu ñu ñëwee ne ko dañu bëgg a weex pharmacie boo fa demee sa soxla la ngay wax kii bu ñëwee ne teint noir la man su ma ñëwee ne dama bëgg xees. Mm. mais bugguma hydroquinone bugguma yàq sama am ay clients yi dañu bëgg xees parce que sama métier la. damay proposé ni ma lii lay jël dama jël sama temps xam ne lii may def nii tey bii bu njëkk da ngay jël benn sérum boo xamante ne amul crème solaire amul loo xam ne day protéger sa peau parce que lii am na huile boo xamante ne tey nit day ñëw am xew nan la am xew une semaine dama bëgg xees tu te rends compte une semaine. nga ne ko da koy jox lu koy. une semaine man dama ko naan une semaine mënoo xees de. mais boo bëggee ma jàmbal la loo xamante ne nag di nga xees mais boo paree yaa xam li lay dal de. donc ko koy waxee noonu yow. mais dama ko koy waxee noonu. lu amul hydroquinone nan la mën a xeesal bañ a xeesalee. bien sûr parce que am na ay sérum yoo xamante ne dafa baax uniquement pour éclaircir. d'accord léegi du am hydroquinone. yaa ce sont des vitamines yoo xamante ne day am ay yeneen ki mooy produit bio ñoom li tuddee ay produit bio waaw bu njëkk dafa metti woon li am ni ñu am ni amuñu ko de <laughs> alors Fatou suñ la déggee boo wax léegi jàngoo ko mhm. da nga jëkk rek un bonjour nga diw ñi ci ne la da mhm. nga xees ba commencé dugg ci def ko métier jaay diw mhm. hmm? xam naa mu rentable lool bi may gën a nekk xale di diw oui boobu xamoo li may diw waaw parce que maa ngi dëkk Louga dëkk ak ay nawbe nawbe ku leen xam-xam ne ñoom diw rek la def moom nga xam ku yeewoo ak ñoom di nga diwu mm. te xeesal dafa nekk loo xamante ne seytaane la mm. da ngay gis ko xees fekk su da automatique sama rab bi donc mu bëgg man tayu ma ko depuis <laughs> ma gisee ku xees sama rab bi lay léegi nag am na jigéen ñoo xam ne c'est automatique dañu lay gis nga xees nga dox ci mbedd bi nii nga mel de ce fait man su ma daan tëdd sama yaay day jël diw ne diwul ma sama digg ginnaaw su ma diwee rek damay jël maasale sama kanam comprendre nga kon man yàlla dimbali na ma mënoon naa yàqu depuis tout petit parce que mais Fatou est-ce que doo ñu wax ne yow da juddu xees ba pare non dama juddu xees wax nga da nga xees dama juddu damay defar sama teint ko ba mu gën a xees da nga xees pare nga yokk ko xeesal ba mu gën a xees d'accord léegi man tey su ma la gisee man mi nga xam ne ñuul naa wala nangam ma gis Fatou parce que dafa xees naturellement yokk ci diwam xee yokk ci peut-être gën a xees xeesam mënul nduroo ak sama xees man ma ñëw ci yow ni la Fatou dama bëgg a mel ni yow nga jël risque jox ma loo xam ne dama war a mel ni yow alors que xam nga ni mënuma mel ni yow bien sûr loolu ko tuddee man jaay naa nit jiw mu gën ma ma ne ko wàññi waaw mm. que yow boo yow instant bi yow sa peau xam nga yow xam nga ban façon tube de peau nga am n'est-ce pas mais boo ñëwee ci kii jaay jiw wax ko sa tube de peau c'est très facile pour mu xam ban la lay jox parce que booy ñëw da nga naan ma dama sama teint dafa dëgër damay diw ba sonn ma xees wala nga ne ma sama temps yi dafa oyof boobaa dinaa xam ne lii laay utiliser pour yow nga am li nga bëgg. mais danga ne sa rab dafa bëgg xees. Hmm. léegi boo moom laa la doon laaj sànq. danga fas yéene di xeesal ba ba ba ba jëm mag. wala danga ko de. non damay fas yéene di xeesal ba jëm na xam nga lu tax. ba jëm su ma diwoo. damay pause benn deux mois sama peau. du ma laal dara loo xamante ni dina weexal. même boo amee 60 ans wala 70 ans. damay non dama ko bëgg. xam nga ah. Jojo maa ngi insister sur le fait que Fatou elle est née mm. xam nga loolu beneen aspect la. Mm. parce que la plupart ñi ñu gis ñuy jàmb diw di jaay. Mm. dañuy xees ba pare. jël yokk ci seen xees. maanaam man loolu su ma nee xee ma ne tey est-ce que loolu du arnaque. du arnaque. parce que ñun juddoo Afrique rek blessure la fii. Ah parce que bien sûr da ngay ñuul ko. bàyyi développé. fii ten bi boo fi nekkee dafa yam nga ni nga yeewu nga yeewoo Europe boo xëyee suba sa yaram bi boo xëyee suba teint boobu du yamti da ngay poussière. Mhm. poussière bi da lay jàpp sa boo ko jëlee defoo ko da ngay mel ne nu mu tudd mooy ñooñu noonu. <laughs> indi bi peuple yooyu noonu. seen yi ni muy mel di poussière di tilim boo ko defarul tamit du baax. tey bu fekkee da nga xees ñun ñoo gën a bon suñu temps moo gën a bon nga judd nekk nit ku xees boo ko toppatoowul defaroo ko dangay ngay kenn xam ban ban son temps ngay am. Mm-hmm. d'accord léegi ñu bëggoon xam euh, ak euh, temps yi information yi ni mu duggee ni ci réseau yi ndax am nga say clientèle yoo xam ne tey ji ragal nañ di retiré wu wala. non kenn retiré wu dañ cee gën a foncé instant bi kenn retiré wu parce que au début amoon nañu retiré wu. noonu bi ma defaraatee dama toog deux ans dugal naa dama toog deux ans deux ans defaruma diw. maanaam bi nga defee test bi nga defee test ci yaramu nit yi ba pare. Mhm. deux ans après da nga bàyyi. dama bàyyi def da bàyyi pause. di tester ci ay peau différents. parce que da nga jox nit yi ay ñenn ñi ay diw diw yu jigéen non dama leen kii euh, jig na leen mais am na ci keneen de visage yoo xamante ne xam nga kanamu nit mënoo ko maintenir tamit. Mhm. comprendre nga da koo diwoo mu am ay boutons. keneen woowaat na téléphone mu faatu man xees naa de mais xees bi ma xees bugguma ko. ma ne ko lan la mu ne ma daf ma weex ba mu ëpp wala bu ma bu may diw des fois day xasan ma dellu si borom fa ki may jaay diw ma wax ko ne ko lii ak lii ak lii. ki lay jaay diw kan la woon benn cosmétique rek nga def fekk muy jaay. nga dem xool ay produits jënd ko fa ñëw jàmb jaxase. comme tout le monde. am na ñoo xam ne nag attention am na ñoo xam ne ci ñi nga xam ne ay jaaykatu diw lañ wala jàmbakatu diw elle elle me dit que ne ñun dañuy liggéey ak ay chimistes. dañuy liggéey ak nangam nangam dañuy xool tester produits yi nangam nangam mais pas ci ay nit comme yow ni nga ko def ak réseaux sociaux yi nii lépp loo bëgg a xam maanaam yow Google nga ko jàpp daal pas Google ah. sama bopp laa ko testé ak ay nit donc produit yi ngay utiliser produits yi ma utiliser la ñu defaruñ ko même ñoom bu ñuy dem di wut ay information ñoom produit yi defaruñ ko ah. ñun dañ koy jënd comme ñoom dem def ko donc yow da am jot dem ci dermatologue mu expliqué la lii nii lay jëlee man am naa temps dugg Google bind bind benn lee boo xamante ne mi ngi tudd Fatou ma ne luy njëriñam lan lay def conséquences yi les causes liir ko daal di xam li ma yor lan la. Mm-hmm. Mm-hmm. du ko du ko du ko utiliser. Euh, vas-y euh, euh, lii da ko def métier. ak amour donc est-ce que xalaatoo ni mën nga dem def formation wala nga def ci ay recherche dem dem renforcer ci say capacité dem jàngi wala dem extérieur. dem nga dem doole est-ce que xalaat nga loolu. dans bien sûr xel du doy parce que type type de poids dafa bëri. Mhm. mënuma maintenir yëpp. foog nga dem jàngi damay ñaan yàlla chaque jour li may def. Mhm. mais actuellement yow ñaata type de peau nga xam yu existé. teint marron. Mhm. teint noir teint caramel. foofu rek nga ko kal teint marron teint noir teint caramel. loolu mooy type de peau yi pour yow. sama teint ma loolu mooy type de peau yi pour yow. ok d'accord maintenant Fatou. jàngoo li ngay def. maanaam naa ko ci sama bopp. ci sa bopp ok testé nga ko ci sa bopp. bien sûr d'accord maintenant tey nga dégg ne tey dépigmentation maanaam xeesal bi. Mhm. dafa dem ba am yàgg na am ay conséquence le débat est revenu sur la place publique parce que observateur daf ci def dossier et les taxaw ci war cee waxtaan pour yee ñu ñun ñi nga xam ne peut-être ñu ngi utiliser yenn produit tey nga dégg ne xeesal bi day indi. cancer de la peau bokk na ci de la peau yow en tant que koo xam ne da ngay jël ay produits rek di mélanger peut-être di ko tester ci nit yi lan lay def ci yow. dama koy tester si sama bopp di ñaan yàlla moom mosal si ñun ñuy jaaykatu diw yëpp parce que kenn ñaanul yàlla di jël loo xamante ni moo tax ma ne la bu njëkk ak léegi yamul te dañ lay defal huile boo xam ne dañ lay wan ne lii boo ko ci defee dina la éviter le cancer am na fi. bien sûr am na fi parce que lépp tubaab bi lépp la ñuy defal jamono ji léegi dara méttiwul technologie avancée na. lépp avancé na tey li nga xamante ne yow da koy jënd am na dangay dem jënd tube am na tube buy jar 500 am na tube buy jar 10 000 francs am na buy jar 5 000 francs lan mooy différence bi donc xam nga am na différence léegi nag bu fekkee da bëgg lu yomb bëgg quantité bu bëri nga dem jënd lu lu lu lu lu lu lu kii nga dem jënd lu yomb bëgg quantité da ngay yàq yaram jàmbur rek mais man munu man déjà man du ma defar paan ndax man xaw mënuñu defaree bëri ko dëwli bëri ko dëwli mm-hmm. man ma def ay set paan yu ndaw yoo xam ne maîtriser naa. léegi dosage bi noo koy xamee. moom laay wax man je préfère ma defar ay paan yu ndaw yoo xam ne maîtriser naa li ci nekk que jël benn pot paan bu mag def ci ay lait yu bëree bëri loolu mën na yàq mu nit quand si on mélange boo xam ne lu bëri la ay produits yu bari nga mélange ko ci benn diw. agressé sa peau quand même c'est moo tax ma ne la du produit yooyu yaa ko wax mais xamoo li may def sama diw. mën naa def benn produit mu nekk yow sa teint mu weexal la man xamoo ndax benn produit mën na ma weexal. da ngay dégg mélange ça ne ba pas dire que da ngay jël ay mélange yu bari nga boole ko ci benn pan léegi euh, gis nañ ni que sa teint parce que gis nañ ne ni ñuy jàkkaarloo ni gis nañ ko amul benn vergeture. am nga teint bu set macha allah gisuñu ci benn picc gisuñu ci dara léegi ñu bëggoon xam tey ji ndax euh, keneen euh, ku bëggoon ku bëgg bàyyi. tey jii wala keneen koo xam ne bëgg na maintenir teint teint bi nga xam ne moom la ko yàlla jox ndax am nga lenn loo xam ne moom nga koy procurer. pour moom. ku bëgg a bàyyi diw. waaw man lay dem na nga dem pharmacie. soo demee nga jënd toppi crème laa mbaa nga xool beneen diw boo xamante ni day maintenir sa temps defaraat sa temps dina metti nag parce que di nga toog 3 ans yoo xamante ni dina metti danga nga ñuul kukk parce que boo commencé xeexal na nga ngay bàyyi di nga ñuul kukk xëm mais de fur à mesure ngay continuer diw bi da nga retrouver suñu peau parce que ñun pour ñu retrouver suñu peau méttiwul. Mm-hmm. tey ñun suñu man bu ma diwoo nii ba weex. Mm-hmm. awma événement awma dara damay noppalu. damay jëlaat sama alors Fatou ma koy wax Fatou euh, pourquoi doo ku ñëw ne la dafa bëgg bàyyi doo nangu jël ci moom engagement mhm. accompagner ko pour mu bàyyi danga koy mhm. yebal ci pharmacien bi ne ko demal pharmacien parce que man yoruma diw bi alors que ku bëgg da ngay jël responsabilité ne ko kaay ma xees parce que loolu mooy sama métier boo bëggee bàyyi da ngay dem nga jël karité nga diwoo ko maa nga dem pharmacie man yoruma diw boo xamante ne danga koy diwoo ko nga bàyyi pour nga ñuul kukk kukk kukk kon amoo diwu teint noir. teint noir am naa ko koo xamante ne teint noir boo xam da nga yow da da nga ñuul xam nga diwu loo xam da lay xëmmal normal ba ku la gis mel ne gaynde si yow il faut nga loo xam da lay leeral sa teint di tàkk def am éclat. yow am na ñoo xamante ne ñuul ñuulaayu jaan moo leen dàqal. moo leen dàqal mais da ngay xëy duñ diw. non am na ñoo xamante ne karité rek dafa baax si po karité dafa baax. waaw chantier yeeg chantier yi boo ñëwee teint noir man karité waaw man karité laay diwoo. mais am na ñoo xamante ne dañuy yor teint noir comme ñuulaayu jaan. waaw mais ñooñu dañuy dañuy diw kari bu leen neexee diwoo karité bu leen neexee diwoo teint bu leen. mën sax bañ a diw waaw ah. xam nga kooku. waaw kooku neex na dimbali. Mm. parce que kooku laalul xeesal ba yaramam yàqu. ok comme teint noir yi jox diw ñoom dañuy xaw a leeral. dañuy leeralu ñu de dañuy maintenir seen teint. pour mu leer pour mu am éclat bu rafet rek. mu am éclat mu am na hydroquinone. non non non. non non non non non en fait ñoom elles se défendent en disant que seen ay diw du am hydroquinone. ok ok mais c' est pas que hydroquinone bi kese mooy produit cancéri cancéri oh, du hydrone kese hydroquinone kese. Oh. en plus démb bijou invité na fi benn dermatologue. elle dit que affaire bi est-ce que comme est-ce que lié la ak ascenseur. Mm-hmm. elle dit que yéen ñi di wax ne seen produit yi ngeen di kii c'est bio affaire yooyu yàgg yàgg conséquences yi day ñëw. waa léegi sama li ma leen waxoon sànq xanaa déggoo leen ko. mooy lan nee naa la bu njëkk ak léegi yamul. léegi àdduna dafa évolué tubaab bi dañoo defal lu baax suñu po yi ñun suñu po yi du gaaw a yàqu de. léegi man ko ba nee na po yi du gaaw a yàqu. léegi est-ce que yow da ngay garanti say cliente tey ma ñëw jënd ci yow diw nga nga est-ce ma garanti que sama yaram bu yàqu yow yaa may faj wala. sa yaram du yàqu du ma lay faj. non est-ce que au cas où parce que wax naa sans que question question bi ma la posé ba xam mës nga ci am retour boo xam ne dafa négatif nga ne waaw léegi ba nga ci amee retour bu négatif boobu kooku est-ce que da nga da nga ko conseillé wala da ko réparé yaram ba ko bàyyi mu dem dama ko bàyyi mu toog ne ko del hydraté sa peau ci karité bul diw ma dara ba ma jox la nga suivre ko ba mu uh-huh. jox léegi après nga arrêté woon deux ans boobu si diggante deux ans boobu ndax formation pour ñëwaat sur le marché non diggante defar dama defar sama paan bu mag defaraat beneen paan jox ko samay xare yi nga xam ne ay tane différent la ñu am testé ko si seen peau. Mm. ba xam li nga xamante ni ki donc ki nga xamante ni sax déjà dafa ñëwoon ci man ma yaramam amul satisfaction ci man dama ko joxaat mu am satisfaction. alors Fatou est-ce que jàppoon ne seen phase test yooyu est-ce que jàppoon ne seen phase test yooyu tey mooy yàq deru nit ki ba indil ko feebar bu kenn xamul est-ce que jàppoo te man xam lu ma comprendre. Mm. gis nga boo diwoo diw. benn une semaine war nga xam baax na ci sa peau wala baax tey teint noir sax bu nemee pharmacie jënd diw tey di nga xam ndax jig na la wala jigu la soit dina gratter sa peau mais bul abuser quand même boo demee xamoo ni la mélange lan la yaa ngi diw bëgg nga xees sa yaram li ci bokkul woon bokk ci yaa ngi wokkatu yaa ngi def ay yëpp pourquoi tu ngay continuer. mosul jaay kenn diw mu am rew wala dara. non non. noonu non. mi ngi maam Koumba. oui euh, comme que ndaxte allah dafay jaay ay diw pour teint noir teint marron. Mm. moom boo demee yéen pourquoi pas doo leen def ñun ñu xees ñu jaay ñu xees ñu ñun ñun bàyyi ñu teint noir yi comme que ñun lu ñuy utiliser na ñoom ñu jaay teint noir yi mais dégg naa nga da ngay jaay teint noir teint marron moom mën a jeexal lépp. mais mënu ma jeexal yëpp àdduna bi ñu nekk nii. ku nekk da def loolu bu la neexee du yow bu la neexee tey. Mhm. li nga xamante ni da lay avancer mais wërsëg yi bokkul ku nekk ak sa wërsëg. yàlla moo bindee noonu àdduna. mais xam alors Fatou nga nekk experte ci mbiru traitement po ndax mën nga ma wax tey lan mooy la peau lan bu ma la waxoon nga wax ma la mooy der lu muy ci doomu aadama lan nga may wax. dee dafa baax ci doomu aadama sax yaram bi boo ko foo jëm man déjà bi ma nekkee am état di wootuma qualité rek laa di woo. lu tax parce que xam naa ni su ma nekkoon di diw sama biir xaw ma ndax damay am césarienne alors que moom laa am tey bañ ma bi ma bi fekkoon damay continuer di diwu peau boobu day oyof. tey 9 mois yi ma toog diwuma hydraté sama peau césarienne laa am alors que def na dara. d'accord donc am nga conscience que ne li ngay jaay am na danger. li may jaay ndax am na danger. ndax am nga conscience conscience boobu parce que liggéeyuma ko. mais tu l'assumes laa am. Hmm. jënd ko dem xool li may jënd. pharmacien bi na ma nii la demee lii nii a demee yow euh, produit yi mu ngi joge Paris wala mu jógee Italie ma lire liñ ci bind. ñun loolu la ñuy sukkandiku. donc yow diw yi ngay jaay da nga bëgg a wax ci pharmacie ngay dem nga jënd lépp say mélange. pharmacie ak sama cosmétique wala ma commandé ko Paris comme ni may def wala. alhamdulilah waaw diw Paris ngay utilisé wala produit thaïlandais wala produit Côte d'Ivoire. lu mu neex. lu ko gis nga man ku ma nag nag. Fatou elle elle s'assume quand même man euh, je l'adore parce que elle assume ce qu'elle est en train mm-hmm. de. de faire et de dire. mu ngi koy assumer macha allah et ça respect ci loolu noonu. nga assumer ko. maintenant Fatou ba tey damay ñëwaat ci ci question bi ndax mën nga ma définir lan mooy la peau. mooy li ma la wax léegi peau dafa nekk lu sensible lu ñu war a protéger nit bu ñàkkee po ñàkk na lépp sa peau li nga xamante ni yow moom peau lu déjà le mot peau rek dafa dafa. tënk alors donc est-ce que xam nga ne yaa ngi contribuer ci nit kii lu mu yàqee yaramam. mais man ma lu yàq yaram. mais yaa ngi ci contribuer. non non contribuer wu si parce que xam naa li may def ndax déjà man ça fait des années am naa si expérience. Mm. kon mu yàq sama yaram. Mm. mbaa mu yàq yaramu. dañuy dañuy waaw vas-y bëgg laaj. ñun ñi concentré wu ci jiw bi kese. Mm. mais ñoom dañuy jaay gel de douche dañ koy composé. dañuy jaay ay. Euh, ñoom kay seen ay composition dañuy jaay ay gommage yoo xam ne nee nañu exfolier yaram bi. ak peeling ak ay peeling lotion yu ñuy jaxase gaam ñoom gaam la ñuy def quoi gaam. crème de visage. ak savon yi ngeen ne boo ko diwoo si tooyaay bi nga koy def mu ibbi sa koor yi pour mu mën a xees. Ah, waaw ça dépend si nit ku ñëw lu mu bëgg ah. mais est que yow tey jii da ngay da da nga da nekk ci da nga bokk ci ñi nga xam tey jii dañuy joxe piqûre. wala ñi nga xam dañ lay jox doom non loolu maîtriser wu ma ko yemewu ma ko sax déjà. Ah, lu jëm ci ay piqûre ak lu ñuy nag ah, xanaa mooy sasee ko sama bopp. man lu may seewu sama bopp dama ko jox doomu aadama loolu nee na ma ko. bu jaay tamit nga ne xeesal baaxul parce que bi nga nekkee en état nee nga da nga ragal a diw sa biir. moom laa lay expliqué parce que sànq nee nga ma ndax dinaa bàyyi man la du ma bàyyi damay mhm. noppalu. Mhm. noppalu dafa noppalu ñaata weer wala ñaata at. noppalu dafa jot rek ma noppalu woon 9 mois. 9 mois ça rek bu programme amul xew amul dara am. Mhm. sama po bi dama koy tëral noppal ko jël qualité rek. mais boo ëmbee moom da doo sa biir. non non ko laal moo lay wan ne la xeesal. du ma ko laal waa waaw sama dépend rek mais man lu baax laa yor. mais mosoo jaay benn femme enceinte. diw maanaam kooku ne la dama war a accoucher d'ici deux mois dama bëgg xees. balaa sama ngeen ko mosoo ko jaay diw non kuy fomm xewam laay jaay diw. ah ah kuy maanaam. comme nga ne ma lay jox diw. waaw non non. nee kuy fomm xewam mooy ku aj xewam. ku aj xewam xewam ok. su amee xew nga puus ko. fekk accouché nga ba pare parce que bu fekkee li may daw man ci ci ci nga ëmb man mënoon naa diw ëmb sama diw woolu naa ko en fait mais boo xasee ba ëmb sa lépp day ubbeeku loo diwoo da ngay am réew moom laa doon éviter. Mm-hmm. léegi bu nekkee parce que boo wokkatoo sax da ngay sa biir bu xasee nga wokkatoo. danger bi nga xamante ne. nañ la opérer nga am laa gën a xam ba pare ba pare boo wokkatoo. Euh, maam Kumba. ba pare boo ëmbee boo wokkatoo sax di woo da am vergeture. ok léegi am na koo xam ne tey mën na la contacter ci réseaux sociaux bi ëmb am na sept mois mais du la ko wax mu ne la ma bëgg lu ma xeesal et tout te gisagoo état bi mu ne nga jaay ko produit bu ko bu ko bu ko boo xam ne tey est-ce que yow balaa ngaa jaay nit ki danga koy laaj yan situation la nekk. waaye yow moom bu ñëwee du wax situation bu nekk nooy ëmbee. non non mën mu woote. en ligne comme yàlla yi mais nit ku conscient nooy ëmbee nit ku conscient di nga ëmb ngay woo nit doo ne ko dama ëmb hmm. ndax mën naa diwul loolu amul. ok c'est bon c'est euh, dañuy dem ci beneen parti muy euh, waañu euh, yaa joojo. Hmm. joojo mbaay joojo mbaay. ànd ak original. jooja mbaay ànd ak original. bi nga xamante ne euh, moom la moom la gars yi taamu. muy euh, waa Ndicouman groupe indi ko accompagner ñu ci li nga xamante ne moom mooy suñu seetu Sénégal. miroir di Sénégal waaw miroir euh, du bi nag dafa naturel ki ko fi indi kooku mooy Alaaji As Ndaw mu baax ni borom Ndicouman mi ngi noonu. dem ba Arabie Saoudi indil ñu ko ngir bëgg lu ñu noppal ñu defee na fa yem mu dal di indi euh, six parfums yoo xamante ne euh, dafa différent yii dafa am yu sew sewaan yu nekk ci biir mhm. xam ne tey bu la neexoon nga bañ a bu la neexee nga bañ a añ boo ci naanee benn fii ba six heures wala sept ci ngoon doo xiif ba pare xeesal bi gars yi di utilise nii mhm. jarul ñuy diw dañuy leer te duñu ko duñu duñu duñu man bii moom ma lay jox non bii laay jël mi ngi mi ngi noonu mi ngi ba tax na euh, may wax gars yi daal nañu ko nañu ko jëndi parce que baax na ci ngénte yi takk yi màggal yi gàmm yi euh, anniversaire yi ak tuur yi mhm. fépp foo xamante ne daal mais ku ko pas sax des fois ku mel ni euh, sama doom ji bëgg yaayam mhm. wala ku mel ni yow maam ko moom sama doom ci wala. pourtant man ci lii laay laal de moom tey moom lii laay ci frigo ah yoo xam nga ne moo la jox tey. waa léegi nag jus bu demee bay. ah bu orange bi lay naan chaque matin. nga am tonus nga am tonus yow. man bii. waa léegi boo demee waaw yow sama client yi laa koy proposé. jeex na daal yombal sama diw. Ah. waaye wér ku xam juróom-ñeent a neex a jàngal. alhamdulilah maa la dégg. doo too ko defatee. alors tey Dioldo loo ñu indil euh, comme plat du jour. dama indi. Mhm. dama indi tey pêche. daal di koy boole kër mhm. tey moom laa indi. daal di koy décorer. Mhm. ñu daal di ndékki rek Sénégal jëm kanam. ñu ni su leen ma sama plat. pêche laa jël. Ah, tey tey ma ndékki bi nan na sale de. sama pêche ndànk daal di koy raxas ba mu set. ngeen di daw. ba pare xet gi léegi am na la. <laughs> Eh, ki ko togg wëyu la Ndeye Ndiaye Dieng. yaayu maman Khady. Mm-hmm. daa raxas pêche bi ba mu set. daal di eh, raxas koog vinaigre ak tuuti citron. daal di koy trancé ba nga xam ne. Euh, bu marine yi marine bi dina dugg ci biir mu daal di jël fariñ daal di koy euh, def ay épices am épice bi nga xamante ne moom la jël mélangé ko ba mu am benn parfum bi mu fëdd ci farine bi fëdd ko ci wëlbati ko daal di daal di tuuti diwlin di ko di ko di ko rëtëmbal ba yàlla def mu doore ñu ne déetawaay kër bi mu daal di koy euh, daal di ciy sotti ndox ci cin li hmm. daal di koy baxal maanaam ba nga xamante ne ndox mais li may seen nii mul euh, la kër la ok ba nga xam ne hmm. jàpp na ko ba ba ba li ci biir ñor mu daal di koy sauté ak beurre aaxal ah, ah. di ciy def tuuti assaisonné ko tuuti ñu ne deetawaay mu daal di laal euh, salade vert am daal di laal concombre am ñu defe ne fa lay mu laal tomate fraîche hmm. laal nag eh tuuti cornichon ak oignon blanc. d'accord kumba kon di nga ndékki. ndékki kay kese lay def moom. bu paree laal original am mais ndékkeem pare na jarul ngeen. mul waaw. mu noonu kon. buñ paree dañuy dégusté. buñ paree dañuy dégusté. buñ paree dañuy dégusté. Uh-huh. dama leen tënk. dama leen tënk. bon ba tax na maam. moo tënk xale yi lii boo ko ndekkee bu ko ndettee laal sa jus original bi nga xam ne dama bëgg gaay yépp xam ne euh, As Ndaw noppal na waa Sénégal xam nga ku dem ba Arabie Saoudi xool li Sénégal yi gën a bëgg nga indi ko mu ba pare mu naturel danga koy naan ba pare te suukar si bariwul amul corona donc noppal nañu kon waa Ndickoumane Group ca kanam sàngara pur bay mandi li ci gën a neex nag mooy produit bi foo dem fekk ko fa supermarché yi yomb na am ci marché bi grande surface dem leen ñu uti ko euh, magu réew mi la du euh, doomi réew mi muy alaaji as ndaw ndukumaan waa ndukumaan groupe on fait un gros bisou merci <laughs> Euh, donc tout à ñu dégus dégusté li nga xamante ne moom mooy plat bi ñu joojo indil boole ko ak jus original bi euh, damay dem nag mu nuyu ñi nga xamante ne actuellement ñoo ngi teewlu émission bi surtout sama réseau waa TikTok waxoon naa leen dama leen di dédicace tey ci miroir du Sénégal dédicace naa leen finlandaise bi <laughs> dédicace leen <laughs> dédicace na leen vous êtes deux cent et quelques mille à m'avoir euh, soutenu par rapport à au choix que j'ai fait merci à vous et gis naa commentaire yëpp merci dégg ngeen ah <laughs> nuyu naa leen dédicace ku déggul turam waxoon naa leen après nga wax ma ko ñu continuer ba tey ak suñu euh, débat ci li nga xamante ne moom mooy euh, cancer de la peau dû à la dépigmentation ndaxte sa micro-trottoir ba tey desoon na bi ñu leen laajee ndax pare nañ pour bàyyi lan lañ la tontu woon. am na ñi ma ñi ma laaj ñëpp am na ci kenn koo xam ne nee na moom moom dañ koo fekk noonu mu toog di waxtaan ne carrément day bàyyi. Mm. parce que bi mu gisee kii yi yooyu ci réseau yi ci la tiit fitam bi demee tout mu ne carrément damay bàyyi ndax xaw moo ni que lii mën na ma ci fekk. Mm. keneen ki mu toog ne carrément man moom banaa mm. keneen ci sama moroom la. mais moom dafa toog ne bés ni ki tey bàyyi naa diw. ma ne ko est-ce que doo parce que dafa ne dinaa bàyyi diw. ma ne ko pas dinaa bàyyi mais xam nga choix bi du ñun te duñ leen wax ñoom lan lañ lan lañ war a def. ma ne ko da ngay da ngay def promesse parce que wax na ko pare moom nee dina ko bàyyi man ne ko da def promesse ci devant tous les sénégalais nga wax ñu ndax dangay ngay bàyyi wala doo bàyyi mu ne je vous promets bàyyi naa ma ne ko kon baax na. Mhm. par rapport ak bàyyi bi dañu am koo xam ne mu ngi tudd docteur Babacar Diop moom euh, ci Facebook la nekk. tout le temps dafay def ay alertes par rapport à yenn maladies mais depuis débat bi bi mu ubbeekoo il dit que là dafa alerté il di que à toutes les femmes désirant arrêter la dépigmentation nee na ngeen xam ne maanaam ñi nga xam ne dañoo décider ne dañuy arrêter. Mm-hmm. ngeen xam ne am na ay risques arrêt brusque bi dafa am ay arrêt arrêt brutal bi dafay am euh, ay euh, conséquences est-ce que xam nga loolu. maanaam tey. ngay diw ba mu neex la nga dem ba bëgg a arrêté nga arrêté moom ndax xam nga ne dafay am ay conséquences mun na am ay conséquences. arrêt brusque bi. mu mooy arrêt brusque. comme par exemple nga jékki saa rek bàyyi diw. toppatoo sa temps wala mais boo bàyyee toppatoo boo bàyyee diw da ngay diwoo da ngay diwoo loo xamante ni dina indiwaat sa peau parce que yooyu alors là parle par rapport au euh, au produit yi nga xam ne sa peau absorbé na ko. day nekk ay produits yoo xam ne tey. am na yenn diw yoo xamante ni moom bu xasee ba dem si yaram. waaw boobu gëmuma bu baaxaat di. te yow yooyu ngay joxe. je pense am na diw ñiy togg ay diw. Mm. lépp a ngi fi lu nekk la def. ay mm-hmm. ay ay zel mm-hmm. ak. ay ay benn tudd eau de javel ak. ay ay weexal lu ne la ñuy si dañ ko ciy def. Mm-hmm. yow bi nit ñi doon sangoo. dañ koy jël togg ko di ko def ci ay diw mais yooyu nag tamit boo amul cancer di am plus leneen lu dul cancer. mos mosuma ko essayé xaw ma ko sax. loolu ñemewu ma ko takk tuwaal nag. takk tuwaal wala nga sol kawas. ñeme wala nga sol non loolu ñu njëkk ña nag yooyu la. ngi am ba tey. Hmm. am na ñu koy def ba tey. takk tuwaal wala sol loolu nag vraiment nag boo bàyyee sax loo ci fekk yaa tooñ sa bopp. Hmm. Mhm. alors moom nee na arrêt brusque bi mun na nekk responsable de maladie plus grave voire mortelle. Hmm. parce que waaye lu ñuy tent ci bopp. waaw lu ñuy jël le lait oxydant. Mm-hmm. poudre bi. jël ko di ko tent bopp pour mu jox la couleur nga jël ko def ko sa yaram waaye loolu lu la war a la ñu ngi koy def si diw di ko jox nit ñi ñu koy diwoo. Mm-hmm. bien sûr. donc yow su ma la déggee da nga bëgg a wax yow suy produit nekkul produit yoo xam ne war na mën a joxe yenn feebar yi. non non te ñaanuma yàlla te feebar bi ñuy wax cancer yàlla na fi jóg. ñu jékki-jékki rek am lu koy faj parce que nekkul diw kese mooy joxe concert. bien sûr parce que am nañu diw yoo ñu a am nañu diw ñu ngi am concert. am na ñoo xam ne xamuñu luy diw karité rek la ñu diw te yàlla nattu na leen ñu ngi am concert. dëppoo dëppoo ñu ngi am concert bu mu mën a doon. non concert c'est maanaam cellule lay jàpp cellule nit. yenn yi xam nañ lu koy joxe yeneen yi xamuñu lu koy joxe mais ça c'est plus technique te euh, techniciens yi ñoom ñoo ci gën a mën a wax mais yow en tant que tey jàmbakatu diw fii ci plateau miroir du Sénégal mhm. nga jël risque di jamb ay diw alors que xamoo diw yi li nga siy jàmb conséquences yi mun a yaram laa ko def ba amoon conséquence yàq na ma ñaata at Fatima Fatima il faut na ma wax wax bi mu leer quoi parce que sànq ba tey maa ngi ko koy raay raayal. mais dafa mel ni gisul ne maa ngi ko koy raayal raayal. mais yii nii togg yee ko Fatima man dama lay jàpp comme benn nit boo xamante ne tey. Fatou. Fatou Fatou ci arnaque nga nekk. Ah. parce que mënoo xees. ba mm-hmm. pare ne yow damay jaay diw. kaay leen nii laa mel. kaay leen ma jaay leen li ma def nii. alors que yow da nga xees naturellement Fatou. mais dama xees naturellement moo tax ma war a defal suma po ba mu gën a weex. te bëri nga ci moroma. non non mais bu ñu xeesee naturellement diw bu ñu ñun ñu xees ñi ñun ñu ñuul ñi ñoo ah bon mais bien sûr moom laa doon ne la boo xeesee da nga war a diwoo lu lu gën a yokk sa xees mënoo diwoo lu lay ñuulal. mais Fatou xam ne xeesal euh, dafa am euh, dafa am euh, nu koy waxatee mën mën nga ci am dafa am conséquence. moo tax nga ëmb man ci loolu. lay ci conséquences yi. cancer de la peau bokk na ci. non man réew yi laa doon daw. ëmb dafa garaaw nag biir. waaw waaw ñu ngi noonu moo tax xeesal garaaw. non xeesal garaawul. <laughs> mais xeesal garaaw na parce que da nga ëmb. yu garaaw li nga boo ménager yu garaaw looloo garaaw. yow des doo dem jënd ménage da nga dem ci cosmétique mu proposé la ay diw mu te yow. yaa def na demal sa bopp mu yàq la de. bëgg nit da nga demal boppam mu yàq ko de. gis nga campagne bi ñu ciy def ñun ñëpp sénégalais yi. Mhm. est-ce que tey état bu ci jëloon ay mesures yu leer. censuré bépp jaaykatu xeesal ne leen amatul kuy jaay xeesal dañ leen teg ay daan borom cosmétique yi foofu la ñuy njëkkee mais yéen ñi def seen bopp ay chimiste di jaay voilà cosmétique yi mën na ñeen bañ a tëj ndax ku nekk benn produit benn produit waaw mais moom laa la wax expliqué sànq ñoom par benn produit lañ yow pourquoi pas yéen ngeen dégg mélange xeesal foog dañuy def ay produit yu bari mais un mélange c'est un mélange c'est un ensemble en fait dañuy dañuy dem dem seetaan benn <laughs> clip bu ndaw ñëwaat ñun nag bu duñ leen gën a sori dañ leen di gën a jege saa su nekk ah mu nekkoon clip bu neex boobu tempo bi dal Chupa Chips. ma dañ leen di gën a jege parce que actuellement miroir du Sénégal la ñuy wax dañuy seetu di gis suñu bopp. Mhm. donc ñu lu ñuy gis rek fi mu ne nii moom la ñuy indi fii waxtaanee ko ànd ceeg maam Kumba ak Timbi. Mhm. waaw noo ko bëggee rek maam. ñu def lan. alors damay damay dem euh, xoolaat euh, continuer ak micro trottoir bi nga xamante ne ndaxte defaloon nañu ko ñu ñëwaat ci Fatou. Euh, bon ñu ngi fii nag sur le terrain ñëw tey pour laaj sénégalais yi lan mooy seen avis ci li nga xam ne mooy wàllum dépigmentation bi tey nag ñu ngi fi fekk suñu benn nijaay nijaay ñu ngi lay nuyu. ça va bien ñu ngi sant bu baax euh, ñu bëggoon xam lan mooy sa avis ci li nga xam ne mooy dépigmentation bi maanaam xeesal ndax gis nañu Sénégal jigéen ñi dañ koy def mais tamit góor ñi tamit dañ koy def léegi ñu bëggoon xam loolu lan moo ci sa avis. bu ma sañoon daal jigéen ñi duñ ko parce que xeesal baaxul munoo jékki-jékki ñuul une semaine nga xees sa peau dootul am doole xam nga bu ma sañoon daal lañ ko fiy interdire quoi parce que xam naa ne vraiment moom baaxul. léegi góor ñi xeesal. ah góor ñuy xeesal xam naa seen xalaat la rek mais loolu moom du yoon moom wax dëgg yàlla xeesal moom du lu baax quoi parce que munoo ñuul tey une semaine nga xees sa peau bi dootul am doole bu ñu lay opéré da ngay am problème man naa bu ma sañoon moom wax dëgg yàlla dañ koy interdire quoi. comme ni ma leen koy faral di waxee rek micro trottoir la tey nag comme que interviewé nañ léegi ki nga xam ne mooy sunu nijaay dañuy jàll ci ñi nga xam ne ñooy xale yu jigéen ñi parce que c'est plus fréquent chez eux ñu laaj ñoom tamit seen avis que nga nekk ku ñuul wala nga nekk ku xees wala nga nekk koy xeesal. non non du dara sax nag damaa gis sama xeet di xeesal man tamit ma ne xaaral ma jënd diw rek ma diw loolu rek la. waaw sànq ne daa doon dégg sama benn mag mu ma koy wax mais xam nga man ba si temps journal mais après mu ma yow dégg nga xeesal luñ si wax après mu tegal ma ko nag mi ne ma bu yeboo na nga bàyyi yooyu noonu mën ko wax na ma bàyyi incha allah. góor ñi bëgguñu xeesa. bëgguñu xeesa yooyu yaay diw sa diw bopp rek waaye kenn imposé wu la ko. Hmm. kon tey ji euh, ñu bëggoon xam ndax maman bi ngay diw da nga doon jël ay produits cosmétiques yoo xam ne yaa ko jënd wala ñii ñuy jàmb ñoo la defar non non pas jàmb sax man mos naa jënd diw mi franc fii ci marché bi mu weex a ma taal yàlla xam na ko ku ñëw na ma lu la xee ma ma woon ko diw na ko diw bi de laa ko jëndee moom a weexal sama yaram dëgëru man lu ma diwoo damay leer sama yaram dëgëru bu baax bañ a sa yaram nit ki ni la yàlla bindee teint noir dara daxu ko si àdduna waaw teint noir moom donc ñun ñu nekk extérieur kon damay wax ci baatu ñu nekk extérieur donc xam nga des fois euh, ak ak téléphone yi xew léegi filtre yeeg affaire yooyu noonu day day nax ñu bari mën naa ni que ñi nga xamante ni que ñi ngi ci diaspora bi ñu bari loolu daal leen di parce que dañuy gis xale yi ñu photo def vidéo raxas ba mu set yónnee leen après xamuloo nu muy demee nga ñëw dugg ci ñëw ba fii naan kii ndax moom la donc te loolu dal na ku ne maintenant léegi nag nit ñi commencé nañ ci affaire yooyu noonu parce que ak bi am peut-être bon mën nga ko bett def benn appel vidéo def yenn affaires yi xam xam nga wala nga yónni nit yooyu day am quoi. Euh, bon ñu ngi nag sur le terrain ñëw tey euh, pour laaj sénégalais yi lan mooy seen avis ci li nga xam ne mooy wàllum dépigmentation bi tey mu nekkoon euh, li nga xam ne mooy euh, euh, reportage wala micro trottoir bi nga xam ne ndaxte defaloon nañu ko ci terrain bi am ci avis des sénégalais alors damay ñëwaat ci Fatou Fatou tey man yow lay diw bër bi ah comme niñ koy waxee Fatou ndax xam nga ne diw bi du rek cancer bi lay indi. ndax am nga conscience aussi ne am na yeneen maladie yu mu mën a jur. bien sûr yow. comme ban toog di waxatu rek feebar bu metti la. Mm-hmm. ah d'accord toog di wokkatu rek foo jaar nga di wokkatu rek xoj xoj booboo gën a metti. te diw bi mën na ko joxe. diw yi mën na ko joxe ñi ñi koy defar ñoom. Hmm? ñi koy defar ñoo koy joxe wala. maanaam ñi defar yu mel noonu man du ma defar bu mel noonu. mais xeesal la rek en tout cas c'est un mais xeesal la mélange la mën na bañ a nekk mélange parce que li may def du ma ko wax fii ci télé bi. d'accord maintenant est-ce que xam nga ne li muy joxe jabet jabet bokk na ci. xam nga loolu jabet mel na mi nga xam ne dafa dafa sonal nit yi. Mm-hmm. xeesal bokk na ci li koy joxe. xeesal gi lu tax ngeen jël ko rek bëgg koo yàq ne ci ay. non yàquñu ko yokk taaru jigéen. Euh, oui yokk taaru jigéen. tu es toute belle ah, wala je rappelle sa beauté c'était naturel dafa juddu xees. après nga yokk ci mais su ma juddu woon yor teint noir bi sama grande sœur bi dama koy maintenir mais xam nga man. justement sama papa daa juddu sama papa daa juddu weex. dama takk takk sama yaay mu ñuul. waaw waaw léegi man si diggante bi laa nekk de. sama teint bi marron wul ñuul je suis obligée ma jóg ko pour mu xees. Kumba est-ce que nit mën na ñuul ba yor suñu teint ñuul mu fexee jox ko diw bu koy xeesal. ba yor teint moom su bëggee. ah bon. ah boo ñuulee ñëw ne da ngaa bëgg diw ñu jox la luy dindi sa der bi. ba mu weex taal. ba mu weex te du am benn mais day yéex nag. day samay diw moom vraiment boo ñuulee di diwoo mën nga toog deux ans pour yenn ñuul yow moom mu la doon diw <laughs> dinaa toog trois ans pour nga xees. une semaine lañ lay jox diw boo xam ne une semaine nga weex daal ñoom capable am nañu am fit loolu une semaine. non yéen loolu ngeen ndax say ay diw danga ciy bind composant yi ci sa ah. étiquette yi. waaw dama ko ci bind mooy composant yi nga xamante ne moom laa fekk ci produit yi ma mélange. nga ci bind. léegi nii nee nga ñu doon ñu wax secret li ngay mélangé. donc mm-hmm. nu ñu loo ñu mën a garanti leen ne composant yooyu ngay bind ci euh, sa étiquette yi. que lu baax composant yi da nga koy lire rek mu dalal sa xel parce que xam nga ni lu baax la. nga lire dara loo xamante ni dangay ñëw ci boutique mu proposé la dara nga jël ko ni nii daal di lii lire dangay kontaan xam la ci nekk parce que xam nga ni baax na ci sa yaram. kon ñu def ay base aloe vera nangu nga ko def ci sa étiquette mais nanguwuñu ko nanguwuñu ko wax nii daal. mais amalu leen intérêt déjà ce n'est plus a amalu intérêt parce que yéen ñu nekk ci plateau bi bëggu leen xeesal. non non mais pour sénégalais. non sénégalais ñu ñuy seetaan bu ñëwee ci man ma jox leen liñ di woowee. gis nga kii day dox suñu maay mbaa xam ngeen loolu. boole naa ak yow yéen a jàkkaarloo. na wax ak <laughs> Fatou mënul dox euh, suñu moyen je pense. wala ñu bàyyi ko non Fatou. la le débat est très calme. et j'aimerais bien que mu continue noonu. ah, ah ci calme gi ak ndax ñii di déglu. mun cee jariñu ñii di déglu aussi xam jaaykatu diw yi lan la ñuy mélanger lu ñu est-ce que danger la ci ñoom ñu dem jënd ko. Hmm. est-ce que du danger ci ñoom. ñoom ñoo xam ku nekk ak sa choix. mais l'essentiel est de bu nekk de dire les choses ni mu nekkee. voilà jaaykat diw bu nekk léegi ko assumer dem jël sa responsabilité utiliser ko su boobaa lu la ci fekk nga xam ne yow la n'est-ce pas. mais non jaaykat diw bu nekk am na communauté boppam je préfère man booy jaay diw say clientèle nga wax nañ ci nekk. Hmm. te nit bu ñëwee dina la mu bëgg weex. yaa ngi dégg dama am xew lu si ëpp lu mel noonu te yu mel noonu daf ñuy daal. alors est-ce que Fatou en toute honnêteté. est-ce que tey su ma ñëwoon si mm-hmm. li ci ne danger yii. di nga est-ce ko def. non parce que defuma produit boo xamante ne man yàq na sama yaram ba may xam danger bi man au début daf ma doon daal mais léegi tafee day. mais produit boo gis am na effet secondaire. am na effet secondaire mais man amagu amagu ko ci man. amatu ko boobu parce que xam naa cause bi xam naa li tax ak li ma ciy def ba du ko am te loolu. ñu ngi protéger peau yu bari yoo xam ne maa leen dajale di leen jaay diw te yaa ngi defar seen yaram. te maa ngi defar seen yaram mais yaa ngi yàqaale seen den seen den parce que heure pause bu jotee man leen pause leen. <laughs> defarul ko dayoo diggante diggante bi ñuy diw balaa pause bi fekk yàq nga leen. def nga si ñoom ay maladie ñoom dañoo manqué am ay maladie te duñ ko xam déggoo man la booy diw une semaine yow lu bokkul sa yaram danga koy xam. kon manqué wuñu dañu nekk si seen ay choix. seen nit vraiment boo yoree am na loo lu bokkul si yow vraiment dama koy xam deux jours trois jours ñu jox la diw tey sa des fois nga diw diw diw boo xamante ne lay jox crème de visage sa bët yi day def nii mais loolu wóoru da ngay dem ne ko dama ko xëy diwoo ko sama bokkul ci man sama bët yi ñu ngi fet feti wala sama kanam bi lii daawuma daal. alors yéen da ngeen dem da ngeen dem bay wax traitement ñu day ñëw nga jox ko traitement nga ni te traitement fu ñu ko waxee mooy yaa ngi faj dara. wala yaa ngi dindi dara non du ma faj boroom yaram bu yàqu. man sa yaram bu yàqoo nga ñëw ne ma dama cere. waaw te xaw ma lan moo la cere nu may xam lu ma lay mën a faje parce que bu man ki nga xamante ne moom laa def confiance su nga xamante ne am na expérience su diw. comprendre nga man am naa expérience su diw xam naa ne lii su ma ko jëlee lii lay defar sama yaram donc nag damay dama lay dama lay sensibiliser yow tamit comprendre léegi si toutefois yow nga jaay nit mu am cere mu ñëw di nga ko ko fajal. non non bu amee cere xaw ma lu ko cere du ko mën a faj. non su dee yow yaa koy jaay. waaw bu dee man maa ko jaay. waaw dinaa xam lay dindi cere parce que xam naa la ma sa def ba mu am cere. Oh. kon bu ñu yaa ngi jël da nga bëgg non amaguma ko jëlaguma risque boobu amaguma ko mais bu fekkee dama la jox diw mu def dara sa yaram xam naa ne tey bu ma doon def tuuti yow su ma lay joxaat pour nga diw tuuti boobu laay éliminer jox la leneen loo xam ne du koy dindi mais tey man nit du ñëw mu bëgg lu ko neex bëgg lekk xaalisam mu am ay cere yaramam yaa ko ma ne ko kaay ma dindi ko ba pare nag teg xel naan la. traitement bi day def 3 ans 4 pour lekk sa xaalis parce que loolu la ñuy def léegi man su ma xamul lan nga def sa yaram. am na ñoo xam ñoo mélangeal seen bopp ñoo jox seen bopp cere parce que ñu def la seen bopp diw xamuñu li ñuy composé ba def ko. dañu ñëw ci cosmétique bi mun la jëlal lii prend lii defal lii jaxase mélange après di nga xees nga weex. léegi li nga composé yëpp moom ngay bind ci ci ci saabu yi moo koy jaay. waaw ak yi ma ciy dool dolli naturel yooyu noonu. yëpp ngay bind ci ci ci ci. wala na yoo xam ne doo ko doo bàyyi dara non l'essentiel yi rek laay bind. mais doo bind yëpp li ci nekk rek. doo bind yëpp xam nga man touche finale mooy sama marque. donc li nga xamante ni man l'essentiel bi rek base bi rek laay bind. base bi mais boo bindoon yëpp tey nga yaakaar ne du dimbali ki nga xam ne jaay nga ko yaramam am dara. mu war a dem ci médecin médecin bi xam lan la utiliser pour mën ko. affaire bi du bind confiance la ak wax la nga gis sama peau mu nga ñeema nga gis sama po mu neex la ma ne la li may mélange soo bëggee ma jaay ko. est-ce que yow sa cliente sa cliente est-ce que su ñëwee. te man aw problème ni ma jógee ñëpp man xam ma muy samay copine tey su may mélange dañuy toog des dañuy toog woo ma téléphone ma whatsapp leen li may jaay li may jaay man ma whatsapp leen ko pour ñu xool. Mm-hmm. ñu defal ko seen bopp parce que des fois du fi nekk du ma am jotu ma des nit dana ma dama bëgg a xees dama bëgg a mélanger sama bopp mooy dalal sama xel man la jëlal lii ak lii ak lii ma fotoo la li may jaay jox la ko. ba ñuy ba ñu ba ma xamee ni waxtaan bi la ñuy la ñuy def am na ci ay euh, jaaykatu diw comme moom yu ma laajtee ñoom naka la ñuy def pour composer mu am ku ne ma euh, moom dafa bokk ci benn groupe whatsapp boo xam ne ay ivoirien ñoom ñoo ko créé genre dañuy def inscription vingt mille xaw ma vingt cinq mille trente cinq mille femme bi yónnee leen euh, li ñuy li ñuy li ñuy mélange pour pour diw lu ñuy mélange pour gel douche lu ñuy mélange pour <laughs> saabu bi ak lépp donc yow loolu lan nga ko gisee est-ce que yow da nga bokk ci groupe chimiste yooyu dem def ay recherche pour. xam alors chimiste c'est un mot trop. trop waaw voilà kay man bokk na ci groupe yooyu ñeme ma ko sax. noo ko parce que ñag yi am nañ fit capable ne. la ñuy ménage di la ko jox yow doo ko xam ñoom seen xaalis ñoom déjà ñoom ñu si gëm yàlla bariwul de ñun li ñu dimbali jaaykatu diw bu gëm yàlla dëgg dinga xam li ngay def sa peau moom ngay jaay nit ñi. parce am na ñoo xam li ñuy def seen yaram yi duñ ko jaay. donc man nit du jóge sa àll ba bëgg xaalis xamoo lu ma jàmbal ma ñëw di dekku ci ay groupe di def ay yooyu noonu ci n'importe quoi. bon kon damay ñëwaat ci li Choupa waxoon. parce que nee nga léegi ci say wax li ngay def sa po loo dul def sa pot doo ko jaay nit tey jii nit ki nga xam ne yaa ngi doon wax ak sa copine yi nga xam ne ci ñooñu nga koy testé. xam nga loolu du sa pot. mais pot wu ñooñu la tey jii. comprendre nga. tey jii loolu est-ce que du nekk benn problème boo xam ne tey yow da dem euh, wut ay euh, produit juste. dajale ko pour euh, kii leen parce que lu nekkul sa temps je ne pense pas que tey ji mën nga jox nit lu fiable par wala mu ñëw mu am confiance wala nit sax di ñëwoon déplacé wu pour jënd mhm. nga am temps woo ki nga defaraloon ki nga xam ne ci moom nga testé mu jógee ba këram pour ñëw pour mu gis teint am pour am mhm. confiance ci loolu pour am teint noir wala teint marron mais loolu amul jàpp du du question da ngay jël nit ki ki nga jaay ngay woo pour indil ko problème mhm. boo ñëwee ci yow tant que amul nit ki lay aw ma si man confiance man man déjà du ma dugg retour man ku ma xamul du ma dugg retour très rare laay jël ay retour di ko dugal. Mhm. parce que mën nañu jël nit ma ñoo fay la na la defal ma retour jaay naa la diw am na fi. Mhm. man du ma def retour damay taayal sax di dugal dañ naan ma yow wéroo. d'accord est-ce que comprendre nga bi ci waat def ma parce que xam naa li may jaay. Mhm. tey man sama grande sœur dafa ñuul xadi. tey ma tey dafa ñuuloon comme kii. mais de fur e à ngay nekk ak ñu xees. dalay jaay parce que day jaayaate. moo tax muy diwul. jusqu'à mm-hmm. présent man maa ko gérer te diwam yàquwul. Mm-hmm. te bu demee jëlal boppam mélange day mel ne xaj. Mm-hmm. ah du xees te bay ñaaw te man sama diwoo da koy xëy diwoo ko barke Cheikhul Khadim yeewu woo ma téléphone du yuuxu ndax kontaan. te kooku yaramam ma gën a dëgër ndax te noir la ni kii la meloon dañ ko doon dem naan ko bul xeesal. d'accord léegi day ji yow am nga xelu diwu. Euh, euh, bàyyi benn deux mois comme ni nga koy waxee nga pause am na ñoo xam ne tey jii dañuy bëgg di xeesal di xeesal ñi nga xam ne dañoo am ay wujju wala ñi nga xam ne ay lawbe lañu du du du duma du ma du ma sax maanaam du ma indexé kenn mais mhm. juste ñi nga xam ne dañ koo bëgg mhm. du du bëgg benn yoon seen teint euh, wàññeeku maanaam ni ñu doon mel parce que je pense que société bi ñoo la naan yow temps yi ñëw nga yow temps yi da nga lii yow temps yi da nga lii mm-hmm. loolu c'est psychologique est-ce que duñu bàyyi ku nekk mu am confiance en soi ku mm-hmm. bëgg garder sa peau nga garder sa peau voilà da ngay toog nga ne da ngay pause xam nga lu ñuy wax yoratul wala sa yem neexul amatul njëndee diw dafa ñuul kukk te ñoom ñooy toog naan la xeesal baaxul. kon loolu léegi loolu tamit nañ ci nañ ci wax parce que conscience nit nga jàpp ko di ko yàq ci ay minutes rafetul. tey boo ñuulee rek ñu defal la problème da ngay ñuulee ñu ne am na problème. Mm-hmm. Mm-hmm. fekk yow yaa toog di noppal wala ñun la diwoon baaxatul. surtout boo mm-hmm. nekkee jaay ko tuddi nga pose di noppal sa poofu dañ lay dañ lay wax ay wax yu métti ah. Sénégal dafa métti. donc da nga bëgg a wax ne regardu société bi mooy tax tey la plupart d'entre nous. di dem di euh, dugg ci loo xamul. ba mu jural la yenn xeesal la rek. yenn yenn maladie yi xeesal suwaa la rek. parce que kii ñëw ci yow tey kii nii bu ñëwee daf ma naan bëgguma weex dama bëgg teint bu marron rek kii bu ñëwee nag mu bëgg a weex taal taal taal ba dépassé sa weex ku nekk ak sa choix. nit mës na ñëw ñuul ne la bëgg damaa bëgg weex nga ko dama bëgg xees. nga ne ko noonu sa teint rafet na ay waaw parce que sama lakk yi ma àndal nii Sali ak ñoom Adama maa ngi leen nuyu de passage. ñoom bëgguma ñuy laal xeesal bi. parce que dafa teel dara yi nga àndal dañoo xees. non xeesuñu teint marron rek la ñu nee sama mag sama mag bu ma bokkal ndey ak baay daa ñuul kooku. waaw comprendre nga man dama leen di comme daf bëgguma xale buy teel a dugg. mais daa nga ko wax ko bul xeesal sama bopp non. kooku ñëpp ak ko doon wax. man toute façon maak moom man daaw ma ko sax li jël man su ma bopp moo ma ñoroon. Hmm. diw côté diw yooyu noonu ku nekk ak sa choix. bi mu ñëwee nee nga ko bàyyi nii bi mu sëyee la jékki-jékki changé teint parce que xeesal moo mel noonu. en fait mais bi mu ko ne ko bàyyi sa teint noonu. mais bu mu xasee ba laal diw te yëgu ma ko nag je suis obligée ma defar teint parce que laal na diw boo xamante ni yàq na teint en fait. <laughs> alors Fatou lan moo la poussé woon lan moo la poussé woon à ce nga jël décision un bon jour rek nga leer déjà. nga am teint clair déjà après déggoo li ma nekk ci environnement yoo xam ne ñëpp ay xeesalkat la. Mm-hmm. loolu ci rëcc di ba pare. da ngay toog nee naa dama bëgg ku weex man bëgg weex. su ma gisee ku weex sama damay bëgg dama koy bëgg. d' accord léegi dama màggee ci environnement boo xamante ne ñëpp dañuy xeesal xeesalkat yi. boobu ma màggee nag yàlla dama dimbali ma teel a am xel. parce que bu mu damay ko business ñuy mélange pour def ko business kii bu diwee benn deux nga gis kii diwu yaramam bi ni mu ko def damay def ma laajte daloo yow law mélange diw ba mel nii pour samay mag lañ non non boobu commencé gu ma pour jë parce que man bi may nekk xale bi may commencé di jaay diw jaayuma diw damay mélange sama copine yëpp ñëw sama kër yaay ku ne ma may la pot daaw ma jaay su suñu gisee sama teint su ma diwoo rek damay weex léegi dañuy obligé ñoom ñëpp dañuy ñëw ma defar paan ku ne ma may la mm. sama copine yëpp xam nañ ko ci man alors ndax ci sa environnement boobu nga màggee ñu yàgg xeesal ndax gis nga ci ñoo xam ne tey seen ay po yàqu na. waaw déggoo li ma wax moom laa lay wax yàqu ba kenn xamul lu muy lool parce que ñoom ñoo ma magoon xamuñu li ñu doon def si ñoom rek am naa si expérience parce que dama leen di laaj lan nga def ba def lii comprendre nga keneen keneen man ko lan nga def def lii man tamit fekk maa ngi diwoo loo xamante ni man mi ngi may leeral te yàqul sama yaram loolu yëpp daf lay yokk expérience. ok maintenant expérience boobu lan moo tax taxul yow ngay déconseiller ñu ci bëri donc pour ñu pour que ñu bañ trop agressé notre waaw parce que déjà xëy di bomb yaram rek. non bëgguma koy agressé poom non non. la ci non non bëgguma koy agressé poom. Mm. man su ma la diwoo diwoo boo. diwoo ba weex parce que tu vis les soo diwoo ba weex dama naan la posal. parce que déjà xeesal dafa ànd ak seytaane dafa ànd ak cat cest à oh. ba pare yow boo weexee lu la laal nga dagg. ku la ëpp sax nga rouge. Hmm, baax na. parce que dafa dem ba dafa jeex. waaw moo tax nag der boobu da koy pose soo ko posé nag diwoo loo xamante ne sa der day dellu si waat mais mënoo continuer di diwu di diwu di diwu di weex di weex di weex ak Sénégal bi ñu nekk métti gi mu métteeg naaj beeg yooyu noonu yàlla dimbali nañ léegi nag ba tubaab bi dañu génneel ay produits yu baax yoo xamante ne nii day tàng jër jër jër jër sa crème visage teg sa crème solaire génn te du la def daal bu njëkk ñooñu amuñu woon sens boobu looloo tax ñu am ay lonet seen kanam yi di yàqu parce que xamuñu ñu doon diwoo mais am na ñu nekk gaynde te ba tey ñu waaye taxul ñu bàyyi. mënuñu bàyyi parce que. am na ñoo xam dañ koy faj sax. ba pare loolu dafay jël temps. ci ñoom boo xasee ba nekk ñuy jaay xeesal. waaw moom sànq wax naa la ko dañuy faj cere naa la ko man la man du ma faj cere boo xamante ne xaw ma loo ca def. Mm. bu fekkee yaa mélangel sa bopp di nga xam li nga def si sa jiw. nga ñëw ne boo xam ne yow yaa ko ci def. ma faatu man kat lii laa jënd mu def ma lii am man la produit boobu comme xam naa produit yëpp yu bëri nag yu si ëpp bëri xam naa ko man la yow boobu lii lay joxe waroo woon dimbali parce que bu ñetti nit mën nañ ko tey mën ngay jël benn exemple benn benn lee lee bi yow mu ñuulal la ñuulal kii ñuulal kii dañ xam ne lee boobu moo baaxu tey des fois nga ñëw jënd diw ci man diw bi nga diwoo ko mu ñuulal la benn pot nga jël nga ne diw faatu baax du ma ko utiliser parce que xeesalu ma alors que da nga waroon continuer jël beneen pot nga pare nag di yàq xeesal ki lay jaay diw nga ne li muy jaay baaxu parce que da yàkkamti man du ma la jox luy agressé peau benn peau nga diwoo ko nga ne da bëgg xees da ngay toll li beneen peau pour nga mën a xees. comprendre bu xeesul toll waat beneen. alors parce que li ñu lay jaay bëriwul. Euh, peau bi ñu lay jaay 500 ml bëriwul. waaw benn 500 ml mënul wër sa yaram danga koy diwoo benn un mois quinze jours mu jeex da ngay dolli. alors je disais que dañuy rappeler juste que ne on a rien contre ñi nga xamante ne ñoo ngi ci di liggéey vraiment ñu am na si ñoo xam ne nag vraiment ay société lañ ci yor. di ci liggéey surtout di xool li nga xamante ne ñu ngi koy jaay je ñu ngi koy jaay dafay ay impôts et tout donc mhm. waxuñu pour yàq mais c'est juste que ne instant bi le débat s'installe voilà les conséquences sont là et on essaie de sensibiliser pour que ñi nga xamante ne ñoo ngi ci abusé peut-être ñu wàññi ko buñ ko mënul bàyyi carrément ñu wàññi ko n'est-ce pas ndaxte pour ñi nga xam ne rek ñu leeralaat bu baax comme ni nga def ni c'est bien amuñu dara contre les jaaykatu diw wala dara mais juste dafa di bu ñu gisee bëri information formation yooyu war nañ koo jël étaler ko sur la toile woo ñi nga xam ne ñoom ñooy jàpp ñu poser leen quelques questions ñu wax ñu leeral li nga xam ne tey ji parce que nit mu ngi jënd diw ci diwu parce que ñëpp bokkuñu da ngay gis liggéey ñii dañuy def lu baax ñii ñoo ci abusé mhm. ñii mën nañoo yem yemale ñii di def pour euh, wàllu man maa gën a man maay gën a gaaw a xeesal mhm. wala man maay gën a man maa samay produit ñoo gën a gaaw def mhm. léegi trois jours presse yooyu tam ñu ngi ko fi gis ñu ngi ko fi gis pour juste seen marketing wala yokk xaalis parce que nit tey ji mën na la woo fekk xale la tey ji ñëpp a ñëpp ñëpp la woo am 12 ans wala 13 ans nga jaay ko jël risque jaay ko diw te kooku xale la yenn saa yi nga gis ah. xale bu ndaw buy diw man nii dama ko gis xale bu ndaw jël xeesal di ko commencé te déjà dalay leer ni yu yomb yi la jël parce que amaguñu moyen pour li nga xam ne jënd des produits yoo xam ne tey jii mën nañ mentenir mhm. seen teint wala mhm. dara duñ ko def loolu ma daloon xale ah. bi may xale di diwu nekk ñoom moom laa lay wax samay début ne la loolu moo a daloon ay ay cubu ñaata la daan jënd ay cubu jël naa ko di ko def mu jox ma picc dama na mënoon diwu sama kanam muy am ay picc rek parce que léegi ci kii euh, bi gis nañ koo xam ne moom na cubu 1000 francs la jëndoon mhm. mu xeesal ko weexal ko tàll loolu rek est-ce que warul mën a conscientiser nit ki mais lu lu jar 1000 francs quand même ko jënd. tib moom dèjà tib moom dèjà day joxe jabet. tib moom baaxul tib. ah donc xam nga ni. non tib moom vraiment tib moom. mais tub baaxul yaa ngi koy utiliser. colonne tub laa utiliser day joxe cancer yow da ngay utiliser yow yaa ko colonne tub laa utiliser. non kan la waaw non nee na tube baaxul laa est reconnaître que am na yoo xam ne baaxul am na produit yoo xam ne baaxul. parce que am na su tube yu baax na oh, crème tibu gel tibu gel moom baaxul. des fois nga jël tibu gel boo xamante ni c'est pour les kéemtoo def ko sa kanam gi waa hmm. am tibu gel tube boo xam ne crème la tube boo xamante ne lépp crème la loolu amul problème. Hmm. mais tibu gel boo xamante ne c'est pour les kéemtoo nga jël ko di ko def sa kanam wala nga des fois dangay jël euh, kéemtoo anti kéemtoo jaay ko nit. mun na ndax mën naa ko def sama kanam. ah kon da ngay utiliser tube. imaginer anti non non euh, anti kento na bañ a nekk tube parce que dama ne la am na tube yoo xamante ne c'est pour les kento. ok comprendre mhm. am na ay huiles yoo xam ne. juste pour anti kento tube yi. tube yi la plupart day faj dafay am. boo xam ne dañ ko defar spécifiquement. pour muy faj dara. moo fa dafay faj. moom ngeen di jël ay heure ay heure yooyu moo fa da koy faj. ay heure lay faj. bu nekk ak li muy faj. maanaam. Euh, euh, laboratoire yi ko doon defar ñu dañ ko defar pour muy faj dara. waaw boo liggéeyee nag di nga xam li ngay def lan la. parce que nag luy jël luy faj ay heure nga jël ko di ko jox nit mu def ko ci kanamam xam nga ray nga ko loolu dëgg li nga xamante ne day faj ay heure di faj ay feeb ay dindi ay cere yi nga jox ko nit mu def ko ci ménage am rien que pour bëgg mu nga bëgg mu xees pour après ñu jaay la diwam dafa baax pour ñu koy ñu lay ñu lay. Euh, euh, complimenté mu kontaan yooyu fekk yow yaa ngi yàq yaramu nit ki. loolu tamit du yoon. du yoon du yoon. yooyu indi yii nii parce que bu si nekk daa am fu muy dem tey bu ñu la joxee diw ne la anti génto la yamale ko si say génto danga naan foor na xaaral ma def ko sama kan ndax yaram bu dëgër laa yor fekk yow ko ki lay jaay diw digalu la ko. Mm-hmm. nga jël ko ñu la nee anti génto la dee ko mujjee sa yaram booy diw jëlal crème de visage nga njëkkee ko sa kanam te boo paree sa kanam bu ko laalaat leer a koor bi sa kanam parce que lu nekk daa am fu léegi boo respecté wul loolu nga yàq sa yaram nag vraiment nag nga yàkkamti des fois nga yor sa kaa wala nga am stress jaawale antikinto ba def ko sa kanam. léegi Fatou Fatou boo xamul po soo xamul po xamoo lu lu lu xamoo daal po euh, su ma ko mën a waxee noonu nan nga mën a composer loo xam ne xam nga ne lii pour yaram la. lii waruñu ko def ci kanam lii waruñu ko def ci lii alors que amoo étude yu yu poussé par rapport à cela. quand même po rek sama bopp man yoruma po wala man lan laa yor. c'est limite. Euh, man yoruma po léegi lan laa yor dama yor po yor kanam yor yor ay tànk yor ay loxo donc yor naa diw boo xamante ne c'est pour le corps boo xam ne c'est pour le visage c'est la même chose. noo mën a noo mën a différencier en fait. différencier mooy man bi ma ko soogee def xaw ma dama ci def ay erreur moo tax ma defaat beneen gamme boo xam ne dama ko may samay nit. ci nekk différent de peau yooyu noonu moo ma sëbee ba tey ma expérience. Hmm. ma xam ne man mu xees mi crème de visage bii moo ma jik yow teint marron bi bii moo la jik si laa xam ne maanaam yow da nga tato tatoné. tatoné ma de. ba nga daj li nga doon wër. bu fekkee noonu nga ko bëgg a déggee nga jël. non laa ci posé dama ko def ci ay nit def ma ko ci ay xar. ci ay peau nit laa ko essayé. justement c'est ça le danger. waaw du danger parce que defuma danger jaay danger. léegi man ko moom li mu wax daf ko testé ci ay nit mais gis naa par rapport ak yéen seen liggéey da ngeen di utiliser bu baax réseaux sociaux yi mun naa wax TikTok da ngeen di live hmm. wala yow bokkoo ci jaaykat yi live gis may live non dama lay laaj ba xam suma live di jaay diw ok ok damay defar samay dugub dugg samay clients xam ne tey defar naa. Hmm. ñu woo ma téléphone Fatou Mela. ñoom sa clients yi fan lañ koy gisee. samay page. page yi lan réseaux sociaux. Ah. am na ñoo xam ne dañ lay contacter à travers les sociaux pour jënd sa diw te mosoo leen gis. non non des fois nit day gis sama client ma jaay ko mu xees des sama client. sa ma yokk sama communauté léegi yow loo mos a diwoo boo ñëwee ci man gaa dama lay laaj. man gaa dama lay laaj wax la loo mos a diwoo loo mos a diw sa yaram lu mu mel dafa dëgër wala ku si nekk xam nga sa po en fait. Hmm. Hmm. alors Fatou pourquoi yow bon jëloo décision vraiment dem def comme ñenn ñi dem def ay étude ci loolu xool li ngay jaay lan la affaire yooyu pourquoi defoo loolu dinaa ko def les jours kañ nga koy def chaque en son temps maa ngi def nii am di si am ay résultat yu baax damaa def lu yam rek loo xamante ni man xam naa ne fii ma yam nii mënuma yàq yaramu kenn ndax ma sama yaram jour bu ma yàqee sama yaram nag boobaa damay bàyyi parce que li may def sama yaram moom laay jaay nii que ça bu ko a doon. mais li la jig mën na bañ mën na bañ a jig. ñi may jot a jaay de mi leen jig bu la jigul da ngay bàyyi nga dem feneen parce que boo diwoo ñaari yoon sama diw jigul la da ngay bàyyi. Adja joo Dior ma bàyyi la Fatou tuuti après mu clôturer xam naa temps bi li ñu dese bëreetul. da nga wax bëgg a wax. Euh, waaw yow. Euh, yaay kon est-ce que duñu dem xooli sa spot original bi. atiwaat dugg Eva bu bu bu bu spot bi parewee ñu dem xool ko ñëwaat léegi ci plateau bi. Chupa Chips. Hmm. Eva. alors Eva mun nañ am spot. original une marque commerciale. Euh, naturelle mu nekkoon li nga xamante ne moom mooy spot original ah ñu leen di recommander original ngeen dem jënd ko Fatou dama lay bàyyi nga tàggoo ndax sama deuxième invité xam naa dafa tardé mais on va faire avec elle les cinq dernières minutes de l'émission elle elle assume que ne dafay diwu et elle va nous dire le pourquoi et mu ko assumer Fatou ma bàyyi la nga tàggoo di la remercier bu baax nag. ci li euh, nga ñëw kontaan. parce que télé bu mag bi laa ñëw nag. waaw nañ ko wax te démb fi ma ñëw ni du ay caaxaan daw ma site internet xanaa kon maa di jaaykatu diw bu mag bi ma naan Eva ak Fatou ñu lay. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. di gërëm sama njóobeen di gërëm sama yaay di gërëm sama xare di ma àndal Amina sama danseuse bi je l'adore je maa ngi gërëm Tawa Konté di gërëm sama yaay di gërëm ñëpp ma kenn Amina loo maa ngi leen di gërëm di gërëm sama maquillage bi merci beaucoup Fatou merci euh, donc euh, damay dalal ki nga xamante ni mooy Oumy Oumy dalal naa la nuyu la il nous reste juste 3 à 4 minutes avant ñuy euh, tàggatoo. yaa ngi am jàmm. maa ngi sant bu baax d'accord Oumy on va juste faire vite parce que li ñu dese ci ay temps bëriwul Oumy nga assumé ne yow da ngay xiisal. lan moo la ci dugal. waaw parce que au début j'assumais que nekkuma man mosuma ñëw carrément comme les deux. Hmm. tey marron bu rafet laa amoon mais tendance bi. tendance bi mais genre diw mu benn diw bu fort parce que man damay am limite à chaque fois soo ñëwee ni ma dama bëgg a xees pecc je dis non mënuma ko. alors est-ce que am nga conscience des ravages yi nga xamante ni tey euh, xeesal wala diw mu ngi koy joxe. oui am naa ko parce que maa ngi koy gis ci dëkk bi lañ dëkk quand même. Mm-hmm. est-ce que loolu conscientiser na la est-ce que loolu jaral na la tey nga bàyyi. man mën naa bañ a classé wu si jaaykatu ñu xeesal ñi carrément carrément parce que man je suis plus spécialisée si produit yoo xamante ni c'est naturel. Mhm. parce que en même temps dañuy jaayaale jiw. ok mais je vent pas produit yoo xamante ni maanaam xeesal bu extrême la man soo ñëwee déjà ni ma dama bëgg a xees pendant 15 jours un mois je te dis non. mënuma ko mënuma ko sincèrement je me limite man parce que ni ma jàppee sama bopp laa jàppee nii. alors que ce soit bu gaaw bu xees les dermatologues nous disent que il toujours le danger danger baa ngi fi elle est permanente le danger est permanent mhm. si am na fi parce que dañuy gis ñoo xamante ni dañuy ñëw déjà am xew ni la dama bëgg a xees pendant di jours ñu jaay la bien vrai que y a des y a yoo xamante ni dañuy jaay produit une semaine nga weex tàll mais après y a des conséquences alors ndax li ngay jaay dama ko jàng wala oui commencé nga jànguma ko mais am na ñu ma xam ñoo xamante ni jàng nañ ko parce que man dama yàgg sopp ok quand je ngay def dama naan la yow comment tu as fait pour faire mm-hmm. Mm-hmm. damay dañ comp j'ai fait des recherches et am na ñu may dégganteel ñoo xamante ni c'est des esthéticiens en fait mm-hmm. ñoo ma formé léegi day benn question pour moom li nga xam ni moom mooy euh, information yi ñuy jot ci réseaux sociaux yi ci wàllum euh, cancer bi nga xam ne dépigmentation mu ngi koy joxe. Mm-hmm. léegi yow loolu sa clientèle comme ni nga koy waxe parce que on voit que doo nit koo xam ne mu ngi xeesal. bu extrême bu extrême mm-hmm. yow juste su ma lay focaliser tey ci temps mën naa ne temps maroo nga mm-hmm. léegi est que amul sa yenn clientèle yoo xam ne tey ji ñu ngi def retrait parce que ñu ngi xalaat ni que ñoom danger yooyu mën na leen dal wala dara si ok parce que ci diggante bi ñu commencé sensibiliser ci diggante bi bi ñu commencé sensibiliser. si du fi jaar chaque jour nga gis koo xamante ni diw na regretté na ay itam parce que toujours nga gis même challenge yi yana nga gis ku xees pecc jikki saa jël diwoo kaarite ñu kukk parce que dañuy regretter c'est pas bon qu'on se dise la vérité. Mhm. man xam ni baaxul moo tax foncé wu ma si. Mhm. mais su ma neexee tey tey mën naa xees mais c'est pas bon. d'accord mais quand même yaa ngi jaay pour ñuy bëgg xees. maay jaay mais jaayuma pour xees. contradiction contradictoire alors euh, li ñu cërale woon ci euh, temps jeex na damay bàyyi. ñi nga xam ne ñoom laa seqaloon plateau bi ñu mhm. tàggoo. bon ñu ngi nuyu képp ku toogoon këram di ñu seetaan di leen wax di ko rek kontaan nañ bu baax a baax a baax ci yéen maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñooy samay waajur di leen nuyu bu baax a baax a baax sama maam faatu mbay maa ngi lay nuyu bu wér a wér a wér sama xol nga di nuyu tamit képp kuy soppee ndaxte ndaxte famille duma toog ci plateau ba jóge fi te duma lay nuyu yéen nekk sama ginnaaw di ma jàppale ak képp ku bëgg ndaxte rek maa ngi jàllale nuyu. yaay jo joodo joodo borom waañ waaw borom waañ bi ak original. ak jus original. Euh, damay damay nuyu ñi nga xamante ne rek euh, ñi ngi may seetaan ndax euh, li Pape Bool doon wax àdduna groupe la ku nekk ak ki la saf. Mm-hmm. donc ñi nga xamante ne. dañ maa bëgg rek te yàlla tax maa ngi leen di bëggee di kontaan ci ñoom bu baax a baax mais di nuyu madam Ndiaye Awa Kër Massar bërki démb dafa dajeeg man fii ci bunt bi ne ma yow laa doon seet ma ñëw mu song ma. Euh, tatagal ma te loolu yombul. macha allah foo gis ku la ku la ku la xaw a kii di nga gis ku la xaw a bëgg. kon donc maa ngi koy nuyu bu baax a baax euh, kii poissonnerie bi nga xamante ne ñoo ma jox euh, fruits de mer yi. Mhm. moom mooy jéeju sama kër poisson. <coughs> pardon poissonnerie bi nekk Tëngéej mu tudd sama kër numéro am macha allah boo demee sëdd yaa nga fa. gambas yaa nga fa ak yeneen ak yeneen lépp lu fruit de mer mhm. dañuy daal di def rek 77 940 18 26 ki nga xamante ne nag moom a ñawal rob bi moom mooy Proxane Couture ma nga ca rond point Cyprès 78 388 05 18 nday mbaaxe ngoom goroom moo ma may euh, euh, tissu bi ma ñaw ko maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci ñëpp di jaajëfal ñëpp maa kumba bonbon tàngal. <laughs> maam Kumba. <laughs> ñu bàyyi la nga tàggatoo am am am am mbégte bokk ak yow plateau bi également comme on le fait di gërëm sama yaay ji sama mag ji avec ma sister bi nga damoo ak euh, sunu invité bi ummi macha allah. bu tardé bi comme ça bu tardé bi. di gërëm ñu doon seetaan di gërëm aussi Sophia ak Lamour nga xam ne tout le temps sonnoo ci man taayoo ci man sama waa ji chéri Cheikh Talla depuis Jëppal numéro téléphone baa ngi nii 77. 4 544 24 56 adresse bu baax bi la waaye Choupa Style moo jaar fii nag code leen ma samay réseaux sociaux. <laughs> alors euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo Oumy. maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di leen remercier euh, ravi de faire votre connaissance partager émission bi di nuyu sama yaay sama jëkkër sama famille parce que ñoom ñoo ma dooleel ak képp koo xam ne yaa ngi bëgg Oumy. voilà mu nekkoon li nga xam ne moom mooy miroir du Sénégal mais ma leen di wax ne nag suba la ñuy tëj sujet bi avec Bijou euh, Ndiaye et mois ci plateau bu demain bi de 9 mm-hmm. à 11h fii ci miroir euh, du Sénégal remercier ñi nga xam ne yéen ñëpp yi ngeen doon teewlu. muy ci TFM télévision Futur Média wala tamit nekk ci réseau yi euh, suñu réseau yi SSP TV TFM sur YouTube et tout remercier waa TikTok sama xarit yi TikTok nuyu naa leen. <laughs> sama copine yi sama copine yi si TikTok bi yéen ñëpp macha allah jox leen dig daje ba suba ci euh, miroir du Sénégal.